ci jotaay bi wax dëgg yàlla xel dañ na sa way jur Cheikh Mahamadul Moustapha Sarr waaye xam naa ne daal géej ak girnde gi bu ñu wëttuwut danañ gëj a xamati ku mbaali jën ndax lii moom nit mënu koo xam man ko di yab géej gi pour mbaalal ñu jën yuñ lekk noonu la Mawlaana Cheikh Ibrahim defa xeet yépp rawatina suñ bokki njoomin ke yii nga xam ne ñoo dëkk ak ñun te teel jàpp ci baay ca góor gi Babacar Sarr ba bésab tey mbokk yi Cheikh Ibrahim Niass mii ci sama wet di président groupe walla société walla jameeya walla yu bëree bari mën nañ ko tuddee Baye Copre Barham Copperson moo leen dajale tey ci bés boo xam ne Barham Day la ko tuddee yi ma tudd noonu yëpp ci anglais moom su ci accès dana ko leeral Cheikh Ibrahim ca gàmmuwaat ga ci barkeem maama Maulana Cheikh Ibrahim yàlla def ñu dajee ci plateau ci jumaa ji mooy waxtaan yi ñuy def ci gàmmo yi ak gàmmuwaat yi bi mu waxtaanee ba pare ma ñëw nuyuwanteeg moom ne ko rakk ji kontaan naa ndaw lu mel ni yow bi waxee lu jege ñetti làkk te làkk wu nekk gore nga ci loolu de lu ma yéem a yéem la te maa ngi ñaan say am saal ci pay bi gën a bëri mu ne ma man de sos naa mbooloo moo xam ne 2011 laa ko sosoon mbooloo mi am na nu muy liggéeyee bëgg naa sax ren ñu def dara waaye def jooja dama la caa bëgg a boole boole gu wir lu mat weer wala lu ko jege mu wooma ne ma Cheikh Ibrahim bi tey la ma la waxoon jot na dañoo am journée buñ tuddee Cheikh Ibrahim muy Barham Day grand théâtre lañ koy defee da caa am rôle rôle bi nii may tëralee laa ko bëggee yàlla dimbale ñu am lu ñu dab ci biir mooy cheikh mouhamadul maahi cheikh ibrahim xaadimul ummati wal wal milla génn dëkk bi dem soudan li xew-xew li xew ñëpp ko xamandoor ñëpp ko yëgandoor mu ne ma dama bëgg ñu boole ko ci sargal sëriñ bi ma ne anaam ah, mu ne ma loolu mooy nekk premier partie bi deuxième partie bi door a ñëw lu bokk nag ci mbiram Soudan ak waxtaanee Maulana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass dama bëgg buñ dajee ci jotaay ba yow laa bëgg nga def ci même buy lam waxoon sax dafa bari ndax vingt minutes la waxoon léegi laa koy wax ne ko du mat sax diis incha allah waaye du tere dana rafet mane waaw loolu de xam naa bëgg a dëgluloo nit ñi kalimatun min baidin la waaye ñi ma ko gën a xam gën ma koo man ñu ngi ci jotaay bi mbokk yi ku oote dajee dana am yi gan dana am ñu ci ñëw mawlaaya Cheikh Ibrahim ci ndigalal way juróom yeeg nijaayam yi bi mu wootee bés bi am na ñu ko fekkeele si ngeen baal ma ma tudd ci tuuti nit rek xalilun min kasiirin lay doo waaye tudd ñëppu du yomb sëriñ bi bi mu ootee way juróom bu jigéen suñ yaay suñ bàjjan njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim gu jigéen gi ñim jur bàjjan laa leen di wooyee ñu bëri xamuñ lu ko sabab Mawlana Cheikh Madi Jaani Cheikh Ibrahim Ñas moo bind ci loxoom ne man doomam laa bi may jox lijaasa daf ci bind ne man doomam laa bi manzilatil awlaadi ka abubakarin wa ahmada wa xomara wa usman loolu la bind moo tax bu ma ko waxee bàyyi rek damaa wax ñu ci des bàjjan loolu laa ci jublu ñu bëri dañ koy dégg waaye xamuñ lu ko waral euh, teew na ci jotaay bi suñ yaay suñ bàjjan cheikha mariam bintu cheikh al mooy taarab jotaay bi mooy kilifaak jotaay bi mooy barkeb jotaay bi sey seyxa ñi fi teew ñëpp ñaa say soppe lañ ñaa sa dooma leen boole ñoo yow ñee say taalibe lañ am na ñoo xam ne bi nga toogee ñu toog ñu xool la buñ noon wasalaat nañ tasaaroo doy na leen ndax ñoom jëriñu nañ bu yàgg yàgg yàgg yàgg Cheikha Mariam nag buggumaa guddal ci moom ndax loolu dafay jël temps bi tey liñ dese ci temps bariwut waaye mooy doomi Cheikh al ji walla jima ma xam man mu njëkk ubbi madrasa quraaniya maadara bu mag boobu mu ubbi woon ci États-Unis d'Amérique di jàngale alquran di jàngale lu bari ci fànn yi ci xam-xam yar ñu bari lu bëree baree bari wattu alquran ci loxoom ci foofa bi mu ñëwee ci réew mi tamit mu sosaat ko ci maris gannaaw gi la ko toxal fii ci boori SDE bi mooy fi dëkkee école bi mu tuddee ko cheikh al islam cheikh Ibrahim Niass Mawlana cheikh Ibrahim école bi di jàngale mboolem xeeti xam-xam yi di yari tamit ndaw yi rawatina fexe bañ mokkal alquran ci seen dënn yi loolu ci la yar njabootam ci la yari tamit njaboot yi ñu ko dénk ah, ñu ne ci loxoom cheikha sa taalibe yi ñu bëree bari bari ñëw nañ maa ngi gis léegi. cheikh Aboubacar Diop di muqaddam cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu waaye baal ma wax ko li ko gën a neex daf fi teew wuutu cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne Mamoun Issa Diop mi nga xam ne liggéeyam ci kër gi ak góorgóorlum ci fayda Mawlana cheikh Ibrahim yaakaar naa ne nëbbootut kenn ci taalibe yi wala jullit yi rawatina fii ci Ndakaaru gis nañ sa doom Seydi Ibrahim Barham Seck di président Ansaaru Diin ci département Dakar ñëw na teew ànd ak ay collaborateur am bu ma ko waxee mooy ñi koy liggéeyle Seydi Inaya mu suñ papax Ahmad Dam Ñang bokk na ci ñooñu ndax xam naa ne kuy liggéey liggéey bu rëy la ci wàllu culture ci Ansaaru Diin ki ma tuddoon léegi maa ngi koy tuddaat sëb sët Seydi Aliou Diop mu ngi nii toog ci jotaay bi di sët Cheikh Hadji Abdoulaye mi nga xam ne danaa ci wax dara léegi ci kanam ndax ci ñu tuddee jotaay bi la bokk suñ jigéen bu baax sa doomi bopp yow nga xam ne yaay bàjjanam xaqan di suñu jigéen Cheikh Madiam mu Seydil Arabi Niass mu ngi toog ci jotaay bi mu suñ maam Alaaji Muhammad Zeynab moom itamit maamam Umul Fayda sayida roqi xadijatu euh, bint Cheikh Ibrahim dafa bokk ci ñu ñuy rendre hommage ci bés bi tey maanaam ñu ngi ciy ñaanal yàlla ak di leen ci barkeloo Cheikh ama jëm ku teel a ñëw la man de bi ma ñëwee ci jotaay bi dix heures la te fi ko fekk kon yëf yi yitteel na ko lool yëf yi sangam bi rakkam ji yitteel euh, yitteel na ko wala jaamam bi yitteel na ko lool moom sax mooy sang bi wax dëgg yàlla mooy sangam Cheikh Cheikh Ibrahima euh, Cheikh Alhaaji Ndiaye euh, nga xam ne man dama koy tooñee ne mooy muqaddam intellectuel bu mag bi di di ko ko man li ma yéem ci yow xam naa kuy corriger kuy jàng waaye kuy corriger professeur université ci ci français yow rek laa ko ma a gis gis naa ci université bii Dakar ñu bind ay article mu teg ko teg ci big bu xonq corriger ko di yóbbuwaat ko ca ñoom won leen ko ne leen da ngeen a juum ci tubaab Cheikh El mu ngi nii nekk plateau di liggéeyal Maulana Cheikh Ibrahim Niass ridwanullahi taala aley waaye nañ ma baal ñii ñëpp kat bi ma leen di tudd waroon naa am ku ma jiital ndax am nañ koo xam ne député assemblée nationale la mu ngi ci jotaay bi muy monsieur Yoroba Yoroba ñëw na ànd ak Amadou Diallo monsieur Amadou jàlloo euh, ak délégation bu rëy moom mu nga ne ci kanam moom sax. nañu muñal ndax dafay am kaddu incha allah ci kanam ak Abdoulaye Fall moom itamit ànd na ci délégation bi nga xam ne délégation bu assemblée nationale la te ku jiite mooy député assemblée nationale bi ñuy wax Yoroba ah, gan ñi bari nañ lool li ma waxoon du ma mën a tudd ñëpp waaye ku ma tudd tamit nga xam ne bu ma dabaatalee ci kanam danaa la tudd muqaddami sa bàyyi ci dëkk bi ñoom ñëpp yëg nañ daje bi am na ci ñoo xam ne seeni ndaw agsi na am na ci ñoo xam ne oote nañ ne ñu ngi ñëw ñu ngi ci yoon ñu ngi leen di xaar incha allah bu ñëwee danañ leen jox suñ wàccuwaay seen wàccuwaay euh, zikarkat yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu amatan bugguma détaillé loolu ndax su ma ko détaillé dinañ fi fanaan wala ñu jeexal heure bi ci lu mel noonu loolu mooy présentation bu gàtt boo xam ne euh, waxoon nañ ma ne naa ko def ba pare nag door a liggéey bi mbokk yi man de liñ ma sant manuma ko xam naa ne ndokki bi ma xamee ne manuma ko ndax wax dara ci cheikh Mouhamadul Maamoun euh, Maahi cheikh Ibrahim Niass xaadimul ummati wal milla yombut lu tax yombut ci man mooy ñaar mooy xam ngeen ne ñun ci mas gu ndaw gi juddu barki démb ci lañ bokk te nit ku xamut départ am néew na nga mën a xam fa ko yàlla yóbbu gannaaw gi waaye nag gannaaw mag ñi taraku lana araman min al maxtuutaat bàyyee nañ ñu ay kàggu xëy na ku xool ci kàggu yi da ci gis loo mën a waxee ci moom Cheikh Ibrahim mboolem taalibet Baay yi ak mbokk yi ñu ngi lay gërëm lu tax ñu lay gërëm mooy lii nga def ñëpp la war bi ma ñëwee toog rek da ma wax ne ma gannaaw ñun ñoo am la grand bu may jël dañuy jël grand théâtre wax juree la ma wax damaa ñëw mu ne ma wax nañ ma fu ne naa naa fa def daje bi du fees ak nañ ko def feneen ak nañ tànt ak tànt gën a yomb fii dafay am fere mu ne ma man xam naa ne ñun la grand ñoo ko ànd ñoo ànd ak moom muy Maulana Cheikh Ibrahim mais Cheikh Mahamadul Maahib mooy la grand tey ci kaw suuf ku ko am war ngaa war nga koo jëlal grand théâtre mu ne moom de maam moom nijaayam sëriñam suñ sëriñ ñun ñëpp fi gën a rëy ci ndakaaru la bëgg ñu njukkalee ko la bëgg ñu waxtaanee ko mu am ci ndigalal cheikha ak ay bokkam ak ay nijaayam yëpp ak i doomi ndeyam ak i doomi baayam ñoom ñëpp kontaan ci d'accord ci seydi wa mawlaaya cheikh ahmada tidiani seydi ali sise al imam xam naa ne bu fekkee ne du xat-xat mun naa am sax ñu mu fekk suñ jotaay bi tëj si ko ndax man yëg naa bu yàgg mu ne moom bëgg naa teew ci jotaay bi ibrahima seck mële gambi la demoon gunge sëriñ bi waaye daf koo dagg wëññeeku ngir importance yi jotaay bi jotaay bi dee ku ko xam da nga xam ne lu am importance la euh, mawlaaya arab yi dañuy wax ne annaasu linnaasi maadaamal wafaau bihum bihim wal usru wal yusru saatun wa awqaatu nit ñi feeg yaa ngi am kóllëre sa diggante ñoom yaa moom nit ñi nit ñi la moom annaasu linnaasi maadaamal wafaau bihim feeg yaa ngi am kóllëre sa diggante nit ñi yaa moom nit ñi nit ñi ñoo la moom te jafe-jafe yi ak yomb-yomb yi maanaam àddina bi neex na ak naqadina réew mi dafa naqadeeg dafa neex bu mu yàqal kenn dara def lu baax ndax loolu ah saatun wa awqaatu ay heure rek la ak i waxtu rek la du dara lii sax mooy kóllëre diggante nit ñi kóllëre googu nga xam ne danga nga koo mottali nag wuuti ci mboolem taalibe yi looloo tax ma ne la yow xaw ma kan waaye yow ñëpp a lay gërëm ñëpp a lay sant mbokk yi ku am lu baax wala ku am loo bëgg danga koy sàmmal alalam sàmmal ko la moom suma leen ci buggee jox misaal damay wax ne yonente alama sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moom ñu wéetal ko waaye yonente ko ko sàmmal yàlla moom moom tawxiid waaye yonente ko ko sàmmal nañ jànge alquran ñun ñëpp dañ fekk yax yu du jeex yàlla di wax yonente bi ne ko xeexal ak nit ñi bañ wax laa ilaha illallah kon kay tawxiid yàllaa ko moom waaye soo bëggee sa waay da koy sàmmal lu moom yonente bi sallallahu sàmmal na yàlla tawxiid sàmmal ko julli na julli leen sallu kamaa raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis may jullee wax na ne jël leen seen aj màkka ni ngeen di jëfee aj ni ngeen koy aje jëlee leen ko ci man xusu min minni jëlee leen seen ponk aj yi ci ni ma koy defee ngeen koy defee sàmmal taw tawxiid tab yàlla bi ba mu àgg foofu cheikh na tijaani bi ko cheikh yónnante bi joxee tarixa bi gannaaw bëgg na yónnante dafa bi tarixaat bi lu mu ko ko sàmmalee dem ba wax nit ñu ne leen su ngeen déggee ci man dara peese leen ko ci chariatu bu dëppooyee mana bu dëppoo du man ndax man li ma yore yonent ko joxe te yonent du joxe lu wuteeg charia sàmm na ko samp na xeex nañ ko ci Alger xeex nañ ko ci Maroc xeex nañ ko ci Sahara bi attaqué nañ njabootam gi bloqué nañ tabaxam jum zaawiyam bi ci Faas te terewul seen naa Cheikh yeggali na lépp kon loolu jàngale la ci mag ñi Baay Ñas ridwaanulaahi alayhi biñ ko joxee faydaam bi Cheikh Ahmed Tidiane jox ko daf ko sàmm wax na bi muy taalif kaashiful albaas moom Baay ne damaa toog rek ñu attaqué tariqa bi attaqué sama sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi bugg a wax li tax ñuy njukkal Cheikh Mouhamadul Mahi ak li tax ñu koy sargal tey loolu laa bugg a laltaayal moo tax may waxee nii Cheikh Ahmed Tidiane Baay mu ne dañ koo attaqué di ko inkaar di ko yéefarloo di ko wax lu ne ma bàyyee leen xadaratul qudsi dama liri Kaashiful Albaas ca départ Baye dafa wax ne ma ma bàyyee leen xadaratul qudsi ya ne mën na koy défendre xadaratul qudsi ya mën naay dépendre pépp Cheikh Tidiane bi mu ne ay at gaa ñi di gën di ëppal rek di gën di yokk rek di ma gën di at di gën di attaqué sama sëriñ bi rek mu ne nag ma jog pour taalif Kaashiful Albaas pour défendre na Tidiane sama sëriñ bi fa saara fardan alayya waajiban li kaw nii xadiman li dalika aljanaab fa saara fardan alayya waajiban li kaw nii xadiman li dalika aljanaab gannaaw man maay bëkk néegam bi koy liggéeyal moom Cheikh Ahmed wala PM bi wala man man la mandaté wala man la dégg nga nommé ci diggante moo man ak jaam ñi ak moom ak tarixa bi te man maay borom fayda bi bi tax ñu koy attaqué di ko wax lu ne farata ci man tey Cheikh Ibrahim Niass wareef la ci man bokkul nag waajib ak fard fard du benn farata ci man waajib la ci man ma dog nag pour défendre pays boobu nga xam ne man bi bi naanam laa sëriñ bi ñun ñëpp farata ci ñun waajib la ci ñun ñu défendre wala ñu siiwal wala ñu sargal wala ñu barkeloo liggéey bu réy bi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma def ci Soudan ñun ñëpp la war waaye bi nga ko féetewee de dëgg dëgg dëgg loolu de ñun ñëpp dañ la ci ndokkeel dañ la ci tudd Cheikh Mahamadul Mahi nag jëf jim jëf bi tey bu ci guddal wax xàbbal waxi bàyyi ci Cheikh Ahmed Tidiane ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafay tagg yonent bi di wax mbaax yi di wax ni mel di wax melo yi di wax jëf yi ba ca kanam rek mu ne dalaa ilun ka shamsil munirati maxtafat si waa inda aman li maali daa im lahu dawaa lahu shifa dalaa ilun ka shamsil munirati maxtafat si waa inda ama maali daa im lahu shifa mu ne tegtal yi tegtal ne yonente Yàlla moo gën ci mbindeef yi ta man lu kenn manut ta gën a jege yàlla yonente la yàlla tànn yonente la yàlla gën a bëgg tegtal yi mu ngi mel ni jantam njolloor jantam digg bëccëg bu benn nuage tiimut bu benn niir tiimut noonu la yonent mel mu ne waaye de ah xanaa koo xam ne da gumba bàyyi mu ne gumba kese déedéet gumba goo xam ne amatul faj la koo xam ne yow sa dafa muuru te muuru gi nit mënta koo faj cataracte bu kenn mënta faj la muuru bët bu kenn mënta faj daal kum dal moom li yónnante def doo ko gis waaye yónnante moom jëfam yi ak gënam gi ak manam gi mu ngi mel ni jantam njolloor ci digg bëccëg mbooloo mi àbb naa wax ji jëmee ko ci Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass te lii dagan na de 1978 98 euh, damaa jëli Mawlaaya wa Sayyidi Cheikh Hadj Abdullah Cheikh Ibrahim Niass andi ko ci gàmmu baay Muxtaar Ka ci parcelle mu ngi ànd ak suñ tanta suñu yaay Fat Ngom bi mu toogee ma sëgg na ko Baye mu naa ma ne ko man lañ jox micro bi te damaa bëgg a àbb wax ju sa Baye wax yónnent bi wax la ko ndax lool pay bi dana ko nangu mu ne ma nangu na ko kay kero laa ko wax ne ko ilayka wa illaa farraka ibu lam tasir muxtaar ak ñi ma ànd yow la ñooy topp rek nga jiitu topp ci soo demut ñoom dootuñ dem kero laa ko wax loolu ci jotaay bi kero suma xarit bi Cheikh Ahmad Bukaar dafa yuuxu ci jotaay ci mbooloo mi ci mbooloo mi waa nag am nañ droit ñu ni tamit abbal Cheikh Mahamadul Maahi gannaaw si alaaji Abdoulaye alxalifa arrahil almaghfuru lahu wax na ne loolu dagan na ci pay bi man dagan na ma wax ne yonent bi sallallahu alayhi Cheikh Mouhamadul Mahi lim liggéey Soudan ñun de dañoo war a barkeelu rek di nga njukkal bi ak sargal bi barkelu rek lañ ko barkeelu rek dañ cee bugg a dara rek ñun waaye dalaa ilun ka shamsil munirati maxtafat si waaye nda ama maali daa in lahu shifa ku feebarul feebara bët bu kenn mën taf saafara ci réew mi fudul réew Afrique ak Europe bi yëpp seen bët liggéey bi liggéey bi daal ku am feebarab xol rek wala nga am feebarab bët bu kenn mën ta faj yow yaay ki nga xam ne yaa ko gisut Cheikh Mahamadul Mahi nag dem na Soudan dem fa ci ay dëkk waaye gis nga xale yi duñ xam li xew damaa wax barki dem bu benn ndaw bu nekk université mu laaj ma ne ma yow boo ma doon définiral tukkim sëriñ bi wax ci lu gàtt rek looy wax ma ne ko lii ma la bëgg wax laay wax damaa wax ne togg ba mu ñor de yomb na yekk ko sax yomb na waaye am ku la séddalee la jafe togg bam ñor yomb na yekk ko sax yomb na waaye am ku la séddaleel séddale bi normal jaar ci yoon moo jafe mawlaaye wa sayidi cheikh mahamadul maahi dafa séddale ji woon togg ak baayam bi mawlaana cheikh ibrahim ños radiallahu anhu dem na soudan ñaari yoon man sax yokk naa ci tey ne ñetti yoon la ndax lu tax ma yokk ci na ñetti yoon la damaa dégg Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé fatal fidiyaan wax ne baay bi mu baaxee ko cinquante deux ci aj Makka dafa jaar Soudan ma ne bu ma jëlee li ma amee woon boole kook loolu kon baay ñetti yoon la fa dem ndax man xam naa ne baay dem na soixante deux encore Soudan ànd ak Sardawna Ahmad Bello kooku mooy nekkoon premier ministre bu Nigéria premier ministre bu Nigéria nekkoon taalibe Baye ànd na ak Baye 1962 dem Soudan 72 Baye delluwaat na Soudan mooy yoonam mu mujj ndax xam ngeen ne 13 14 15. rek sëriñ bi dafa daf ñoo war a xaar fële nga xam ne fa la ñooy defaree comme ni ñu defaree woon fii fee nga xam ne fa la ñuy teertoo ndax suñ ko fa fekkut jaaxle muy bar saxam Cheikh na Tidiane ak bësam ak bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi bi muy njëkk dem Nigéria ci 62 bokkut ak ngan gi ñu Cheikh Mamadul Mahi nettalil bu 52. mu ngoog 50 mu ngoog Cheikh Ibrahima euh, Seydi Ali dimbale na ma kon 52 dafa escale mais ngan daal ñaari yoon la 62 ak 72. 62 bi mu àndee Fardawni mu ngi fa fekk président bu ñuy wax Ibrahima Aboud Ibrahima Aboud la fa bàyyi fekk boobu ci la dem jenee na bi mu demee jenee na dem Borno waaye demul ñaala te loolu nit ñi laajte wuñ lu tax te ñaala amul dëkk bu ko ëpp taalibe mais bi mu jàppanteeg bi Sidi Tayib Abul Qasim fekkee bàyyi ci xaj ji te kenn présenté wut ko bàyyi. mu waaxu sukk ci ronam ne ko bee salal ma suma diina damaa bëgg a jàpp ci yow danga maa doy la jaar seen diggante ci ay wax jaar ak ni ngeen xamee baay baay dimbale ko jox ko bagage yi mu yóbbaale li ma waxoon léegi ci gannaaw ko fonk nit da nga koy xaaral ay bagaasam danga ko koy ñoŋalal mu dem doxal yëf yi da xool leen yéen 37 ba 52 baay door a dem 37 ak 52 Seydi Ali Diop loolu ñaata ñaataat la. de bi mu fa escale laa wax. 30 30 37 ba 52. 15 ans jàppal benn googu. léegi 62 ñëwaat lool loolu lan la 10 ans fukki at fukki at 10 ans ah 25 ans muy 20 waaw mboo boole muy 25 ans de dem dem yi laay wax ni muy sori wante nga jël 62 ba 72 fukki ataat day toogaat fukki at lam la waxoon ca départ na la sama tukki yi cërëb bakkan bokkut ci tukkiwu ma pour wut koom. tukkiwuma pour ñu kontal may taalibe tukkiwuma pour ne maa alif diw ju mag yi ñuy dégg loolu taxut maa jóg yàlla rek a ma tax a jóg ak dimbale nit ñi dafay feeñ ci lii ndax koo jox bagage yi 37 door fa escale ba 52 ñaar fukki at ak nangam nga door fa escale bàyyaat 52 fukki at nga tegaat ko ci de nga door fay demaat te bam mu demaatee 62 xam na ne réew ma mbokk na ndax wax naa la ne bàyyi demul ñaala la ko teree dem ñaala ñaala yëpp dañoo buubu na awa képp kuy dëkk ñaala la ëpp ci mbindeef dafa dëkk nekk ay taalibe dañoo fanaani jeney na di xaar baay xam na baay dana fa ñëw parce que booba diggante ñaala ak jeney na dafa naqadee dem saxaar gay fay dem te saxaar googu matt lañ ko doon xambee te saxaar googu amoon na Sénégal ñi xam Sénégal xam nañu bàyyi wax saxaari matt yooyu lañ bañoon bàyyi dugg bañ koo dugal ci coono bi ñu ne nañ ko nañ ko xaari jeney na sëriñ bi ne man nag jiitu jeney na wa ataytu borno ayunu ahbaabi ilayya tarnu maa ngi nii ñëw naa jeney na jaar naa borno taalibe yëpp ñu ngi yoxoolu pour teg ma bët yoxoolu nag ci taalibe bàyyi ci bëgg a gis bàyyi ñaar la yoxoolu xol ak yoxoolu ak bët bët bët yi bët yi nga xam ne ñoom la ni ñi sax ci seen bopp yi taalibe man lañ bëgg a gis gis nga sax moo tax bàyyi bi mu koy tudd baatam ayun la indi ayunu ahbaabi ilayya tarnu ñoom ñëpp man rek lañ bëgg a teg bët ñëpp a ngi yóbbu jur ñu pour teg ma bët ma xale bi nag ki bàyyeen defoon lii moo togg togg gi mu ñor mu yàq ko ci mbana mu yàq ko ci booli teg ko di xaar ku ko ko séddaleel ma ne mën a séddalee jafe Cheikh Mouhamadoul Mahi xaadimul ummati Cheikh Ibrahim Niass aka mën a séddale kii moo séddale ñoom bi ci kanam da ngeen xam ne séddale na ko séddale bu rafet sëriñ bi. si yoonu ñaareelam li nag nga xam ne yoonu ngan la muy 62 72 fukki at après ba mu demee la fa fekk nu Numayr xoolal dem ci dëkk yar fay muqaddam defar leen gëj fa fukki at rek ñëw fekk kenn ci sa taalibe nekk nekk président de la république yal nañu yàlla may loolu ñun ci fii ak feneen ci njaboot ak bàyyi gi ak ci taalibe bàyyi ndax xam naa ñu bëri loolu seen ambition la dem ba jiite réew mi wala yeneen réew yi yàlla mën na koo maye yal na ko yàlla maye. waaye bàyyi bi muy delluwaat Soudan président bi taalibeem la taalibe bi mu fekk ki mu fekk Soudan muy président de la république taalibeem Maulana Cheikh Ibrahim Niass la mooy Jaafar Numeeri waaye bàyyi dem fa dem bu yéeme dëkk ba yëpp topp ko nit ñi déggal ko gannaaw gi xew-xew ñuy ziyaara si di ñëw nuxbatun min al ulama di baxee ko Soudan di ñëw Médina Médina itamit lenn ci ndawam ku mel ni suñ way jur suñ bàyyi cheikh Mouhamadou Touhami bari fa tànk lool cheikh Khouraysi mii bëri na fa tànk ragal naa sax bu ma juumut jàngee na fa ak ñeneen ci njaboot ak baay gi gannaaw gi cheikh Mouhamadoul Mamoun dem na fa def fa daje yu rëy rëy moom itamit liggéey fa waaye ñu doon xaaree xaadimul ummati lil umma xaadimul ummati kunna nantasiruhu lil umma moom lañ doon xaaree umma bi mu dem bi mu demee ci la rassemble rassemblement bu rëy bi ngeen yëg ci la boole boole gi ngeen rëy Cheikh Ibrahim Seck mi toog moom ma gën a xam li may wax ndax mu ngi woon ca yoon wa sëriñ bi lim fa def kenn mënul ko lim dëkk yi baayam demoon yëpp mu dem ko dem na Karra Karra moom lañuy ñuy wax Zawiyatul Hanafiya Seydi Ahmad Hanafi mooy ki nga xam ne moo ko fondement moom lañuy wax Zawiyatul Hanafiya dem na Jénéna bi nga xam ne fa la sox fala taal bi tàkkee ci abul xaasim seydi tayib ba demee foofa def na fa daje yu bëree bari foofu ñu bëree bari bari sax fa lañ dogoo ci jenee na ne ñoom dootuñ xeexati dootuñ jàkkaarloo bindeef mukk di ko jéem a rey wala ñu koy jéem a defal benn pexe kooku jeex na takk jàmm del si ci biir nit ñi ndax ki dem moo huutu cheikhul islaam te waxoon naa bu yàgg man ne bàyyi cheikhun min al islaami la waaye cheikhun lil islaami la itamit cheikhun min al islaami la ndax ko produire te kooku mooy sëriñ ñëpp l'islam bi gën mag waaye cheikhun lil islaami la mooy lu l'islam laaj rek liggéey na ca bay na ca waaram ba ñëpp xam ne moo ci njolloxtanu ku ne moo ci man ku ne sëriñ bi dem na wustaani wustaani nag ñu bëri xamatuñ tur bi parce que almedinatu saaniya euh, almedinatul munawara la ko borom mu doon tuddee Bachar Yaqub mooy ki ko moom imaam Muhammad mooy dugg si noonu da dalal leen ko moom ak délégation bi ma àndal dama ko fàtte waaye woon na ma téléphone ci gannaaw ne ma mu ngi mu ngi ñëw imaam Muhammad bu almahdi ku jàppale ci bis bi moom itamit président bu départemental bu Kaolack Benzeloun yónni na fi délégation yónni na fi nit ku tudd Abdoulaye Abdoulaye Dieng Abdoulaye Dieng mu ngi ci jotaay bi président Ben Saloun moo ko fi yónni pour mu teew fi imam Mohamad Niass limaan ci almahdi Dakar ñu ngi lay dalal ñu ngi lay tatagal seydaa moo wax ne naa la tatagal Seyda moo wax loolu Cheikh Mariam moo ne nañ ko tatagal euh, ku jàppale ci bis bi ci organisation ak i ñaanam ak ak siiwal sëriñ bi dem na ustaani wax naa la mooy medinatul munawara la ko borom tuddee woon gannaaw gi boo demee Soudan moom la ñuy wax azawiya asaniya mooy deuxième zawiya ci sëriñ bi xam naa jenee na mooy al ula ustaani medina munawara mooy deuxième bi cheikh Bouchar Yaqub moo fa dëkkoon zawiya boobu génnee na universitaires yu bëree bëri defar na nit ñu baax ñu bëree bëree bëree bëri léegi nag cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass moom la ñuy njukkal baaroom daf may joxoñ ci mbooloo mi léegi ne ma bi tey l'islam dafa xam nit def ndam ñu koy jukkal ma ne waaw danaa weesoog yow ne l'islam daf koo xam damaa wax ne yónnant bee ko def sallallahu alayhi wa sallam xanaa bu ko yónnant bi defee moom dootoo ma laajati ne l'islam daf koo bëgg wala daf koo tegtale dañoo dem xaybar mërhëb di wax ne maay saaki silaahi wal batalul mujarradu ah maa ñëw maa ñëw maa ñëw maa ñëw jaasi te man duma moy waaye suba ma dagg suba ma dagg ci boppi jullit ñi lim boo xam ne kenn xamul nan lay man daal daanaka li ànd ak yonent bi gen waa léegi su ngeen ma booleeg ñoom ma rey leen man kenn man maay shaaki silaahi wal batalul mujarrad man gaa ñi maa leen man di rek di lagg ci biir kéefër seeg jullit ñi naan ku albirage ku ma ñemee jege ma yàq la ku ma ñemee jege ma rey la ku ma ñemee jege sa jabar tenji la Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne bàyyi préparé Ali ibn Abi Talib te bokk na ci ñi gën a tuuti xat ca ña demoon ca xeybar ne ko jàkkaarloo ak marhab ñëpp na dana marhab dana ko rey ba mu taseeg marhab ko ci digg bi xar ko jëlee ko ci bopp bi ba ci suuf rocci xat jaasi gi dagg ko ci digg bi def ko quatre parties yónnant yuuxu ca kaw ne xatalaw ali wallahi xatalaw ali ali rey na ko waaye lool du félicité loolu du sargal yónnante gën a xam ne ali rey na ko ña fa newoon ñëpp xam ne ali rey na ko yónnante su waxoon ci ndànk ne ali wax na ko rey na ko waaye ñëw dara su ñibbee woon kër ga mu ne ko ali yow rey nga marhab de marhab mi wax ne dafay rey sama sama gaay ki waxoon ne dana rey ci jullit ñi la ëpp yaa ko rey ci biir mbooloo mi la ko waxee ne ko rey nga ko te waxut ko ko ndànk ca kaw la ko ko wax wallahi qatalaw ali gëñ naa ci yàlla ali rey na ko boole ceeg waat loolu ak sargal la ak félicité la te mbooloo mee tax bu koy wax kon loolu la Cheikh Ibrahim def dajale mbooloo mi ne nañ félicité moolaay wa sayidi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim ci ndam lim def ku def ndam ci lislaam dañ lay félicité dañ lay yëkkati baal loolu bi yonent bi dugg fatu Makka dafa dajale saaba yi ci guddi gi ne leen danaa dugg màkka dañuy aj dañuy wër waaye bëgg naa su ngeen ay wër kenn ku ne na ngay lagg ni mbëram làmb di def bokku caaj gi di xaj ba mu jeex nit du ci jàng ci alquran ak sunna fu ñooy waxee naan nañ lagg waaye kere bi ko yonent waxee la nekk nag sunna kere lañ commencé booy wër kaaba gi mel ni kuy ñàkk di daw loolu amutoon bu njëkk ba yonente ne yéen ñëpp na ngeen daw di ñàkk di wër ñu ne lu tax mu ne ngeen manifester xéefari si ne liñ jàppoon gëm nañ ko te duñ ko baax liñ fi gëj gëj yi tamit yu fi soofut te sàppihut ñu gëj nañ fi nekk Medina yàgg fa lool waaye taxul l'islam sappi wala mu soof ba léegi ñu ngi ànd ak courage ñu ngi sawar dara dalut ñu génneewoon ngeen ñu ngi dem tumaranke mais tumaranke gi yàqul dara won leen leen yéen a ngi am kattan yéen a ngi ànd ak force yéen a ngi doo dara loolu du manifestation loolu manifestation la ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mooy dugal jullit ci islam wax ko ci kaw lu mu ci doo wax ko ci kaw lu ci doo manifeste la manifeste la nañ ko wax ci kaw cheikh Mahamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass lim def ndaw ndam lu rëy la dañ koo war a wax ca kaw a kaw benn waaye daf maa wax ne ma man daal damaa mer ma ne ku ma la merloo mu ne ma médiatisation bi daal ak réew mi daal gaañ yi daal gan ak cheikh Mahamadul Mahi gi ni ñu ci war marul leen ma ne ko yee kuy siiwal caaxaan doo siiwal dëgg noppil baal wax ji koo xam ne luñ la miinee la ko mooy siiwali fo ak siiwal caaxaan doo siiwal dëgg mukk ci àddina bañu kii baayam waxoon na ne yàllaa ko siiwal ci fekk mu ngi ci ndaw te ko defal annonce bi mooy boromam wala abdu zaabuli bi suhratin min makri rabbihi li zaaka si li zaaka si bàyyi na na bàyyi na na man yàllaa may defal annonce man suma publicité yàllaa ko amee te ci ndaw la ko siiwal man ba may nekk tout tànk ndaw rek la yàlla annoncé samay mbir kere lañ ma médiatisé man te man bindeef médiatisé wul ma man yàlla ci boppam moo ma ma ne gone gi yow noppalekul baxal ñi le ku min fo ku min siwal fo doo mën a siwal dëgg lii moom bàyyee ñu ko rek ñun danañ ci wax dara loolu lañu ñu Cheikh Ibrahima may tey ñes mii toog ci wetu way juróom ñu toog pour waxtaane ko Cheikh Mamadul Mahi wax ci moom lu yomb la wattu alxuraan teel koy wattu wax naa ko bés ci pas moom directement ne ko ah dëgg dëgg dëgg dëgg sa baay Alaaji Moodu Seynabu bu doon dund mu ne ah ma ne ko dana la takkal garaat dana la may soxna dana dajale taalibe ñu tabaxal la sa kër bopp soo buggee sañ dëkk mu sancal la ko sa baay laa di mot seen laa ko ko waxee pasi gi yoonu kaarang bi yoonu Gàmbi gee mu dem tey yal na ko yàlla delloo see jàmm ànd ak wér gi yaram mu ne ma lu tax ma ne ko ah man de baay laa di mot bu dama koo liiral mu wax ne ñun ñaseen ñi arab lañ te bëggumaa wax ne araab lañ te duma ko wuutal tegtal mu ne taxaw leen ma wax leen li ñu def araab te ba ma liiree wax ja bam jeex yow Cheikh Mamadul Mahi yaay masalul ala ca loola yaa ci féete kaw déglu leen nag ma wax ko su ma ko waxee yéen ñëpp da ngeen nangu li ma wax da ngeen xam ne kii bu ko fi bàyyam fekkoon suñ sëriñ suñ maam daalaa ji ma Zeynabu magi sëriñ bi dangeen xam ne lim lim lim doon wax sëriñ Mahi moo ko jëmbal wala wala kon mooy njollaxtaan ak ña koy jëmbal ñu ko jëmbal bari nañ waaye mooy njollaxtaan ak ña koy jëmbal balaa ji moom sëriñ bu dafa wax ne wa fiina qisaalun shaahidatun bi annana ila al arabi al arabai nunmi bila nukrin taamal fasahatu al kalaami wa xifduna kitaaba ilahi al arshi min mablaqi al usri taamal fasahatu al kalaami wa xifduna kitaaba ilaahil arshi min mablaqil ansbi mu ne ñun araab lañ lu askanoo ci arab bi gën a pire arab bi gën a arab arab lañ yoo xam ne arab bi gën a set arab ci lañ ci askan ñu ne ko ah mu ne waaw loolu de ku koy sikk sax taxawal ma wax la li tax dootoo ko mën a sikk am nga xel nga ne waa mu ne seetantalal njun niñ fasaaxee coox arab seetantalal niñ mën a waxee arab mbaa yéen ñëpp xam ngeen ne Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass arab la gën a dégg ci wolof te ku dégg wolof la nag buy firi alquran nga xam ne ku dégg wolof la dafay mel ni masta génn daara ji waaye buy wax arab dafa mel ni masta namp wolof waxuma laa weneen làkk bàyyi si daaji Mouhamed Zeynab bu mu ne taamal fasahaatu xaatul kalaami fasaak arab ni mu fasaaxee ci arab ñun bu ñuy wax wax ji ni muy fasaaxee te wax juy fasaakat ci diina ku ko xeeb maanaam fasaa ci arab wala fasaa ci wax ci diina ku ko xeeb xeeb nga lu rëy ndax yonent yàlla haaruna dara mayut koog yonent la may fasaa gën a fasaa Moussa rek yonent yàlla haarun ab yonent dara mayut ko ak yonent la rek gën a fasaa Moussa Moussa ne yàlla yee yónnil sama mag yi haaruna ñoo bokk baay man nga tànn tànnoo ko man nga wax ne ko wastan atuka li nafsi yow laa suwaasiral sama bopp man nag maa bëgg nga boole ci haaruna suwaasir ko lu tax wa afsahu min nii lisaanan moo ma gën a fasaa bay bàyyi aaji Mouhamad Zeyna bu ne famille ñeseen bi fasaa lañ def kon fasaa du lu ñuy xeeb ci diina rawatina fasaa ci arab seetantal ma nag ki ma la ci gannaaw nga déglu buy wax araab mu ne bàyyi loolu wa hifzuna kitaaba ilaahi al-arshi min mablaqi al-ashri ak mokkal giñ mën a mokkal alquran bala ñuy xam fukki at ñaari yëpp dafa dajee ci Cheikh Mamadul Mahi Cheikh Mamadul Mahi dafa mokkal alquran teel koy mokkal waaye waxuma teel a mokkal gi bokk ci ñi ko fàttewut alquran ni mu mel ci fatiha ba bésab tey bii noonu la ci mel kaamil bi yëpp laa wax ni mu mënee fatiha la mënee kaamil bi déglu leen ko ci tafasir yi du ngeen dégg mukk mu teg masque fu mu ko war a teg ci biir kaamil bi aka wuuteeg ñu bëri ñu mel ni man ñoo xam ne li ñu war a wax tey dañ ko liir ba sonn waaye bu ñu ko waxee yàq arab dafa dégg arab dafa man alquran te daf koo teel a man te fàttewu ko te loolu dafa jafe alquran ñu gardeel la ko dafa jafe am na nag benn nit ku ma wax ci pet ne ma diw ak diw moom xamoo ne baay biñ ko too alquran baay moo teg seen loxoom ci seen dënn yi ne yéen moom du ngeen fàtte alquran waaw loolu moom nit wax ne ma ko te ki ma ko wax a asiqu bi kalaamihi dëgg dëgg dëgg gëm naa waxam mu ne ma xamoo ne diw ak diw bu léem seen mokkal gi alquran biñ mokkalee ba pare borom karaama gi Mawlana Cheikh Ibrahim moo teg seen dënnam loxoom seen dënn yi ne yow ak yow ak yow yéen ñetti ñi ne yéen du fàtte alquran te ñetti ñooña Cheikh Mahamadul Mahi mu la bokk alxalifa xaadimul ummati wal milla kooku nag moom laa waxoon ca ne ko yow sa laa ji moo seeni bu doon dund yow moom décoré la ba àddina bi teg la bët ndax dafa wax ne ñoom arab lañ nga dégg arab ba ba yéem àddina yëpp bu koy wax du hésité sa waaye ngi nii Cheikh Ibrahim Seck gisul ko fenn fu mu téye te gis nga ñaari réew yii wax ci arab yombut Soudan ak Égypte Égypte ak Soudan wax ci arab yombut te léegi sax dañoo wax ne ki mbiram njàng rek dem ci école yi ak université yi am Soudan moo gën am Égypte ndax Égypte am na lu dugg seen njàng mi lu tudd addina waaye am am Soudan njàng am fay diplôme am na ñu wax ne fi mu ne moo gën amee ko Égypte barki dem rek maa ngi koy waxtaan ak mi ci ay xale mi bëggoon a yóbbu ma ne ko suñu mënee am Soudan moo gën. mu tuddal ma réew bari bëri ma ne ko Soudan la leen gën léegi nag ku dem Soudan jotaay yi bëri te fasante ko hukumatan wa shaaban kenn ku ne nga toog ak ñoom di wax arab arab bi mel noonu loolu yéeme waaye nag mu def la bàyyam waxoon mooy régler problème bi te fekk rek problème bi ñu ngi ko régler Médina loolu ñu bëri xamuñ ko problème bi Médina la régler bàyyi dafa wax ca départ am yonente Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko alayhi alayhi salaatullahi suma salaamuhu fa tushriqu min daw il medinati kaw lahu keroog laa xam ne problème yëpp dina lay réglé alayhi salaatullahi suma salaamuhu fa tushriqu min daw il medinati kaw lahu yonente bi salaai salaam maa ngi julli ci yow ah marhaba marhaba bi sayidi hamid marhaba mumasilul xalifati wabnu wa najlu marhaban biik marhaban biik waaw mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog li la gu rëy sant yàlla gu rëy rëy rëy Cheikh Hamidou mu Cheikh Mahamadul Mahi mu ngi nii yegg si na ci jotaay bi ak ñun niñ xamee occupation yi ko baayam teg diggante daaw ak ren ak ñàkk jotam ak dimanche nga xam ne daanaka mooy benn bés ci noppaleku ah, ñëw na waaw mu ngoog léegi Seydou Aliou Diop may gën di dimbale wax na ma léegi na ma am na ku mu yónni léegi mu wax ma ne ma Ahmadou saar mu Baaba Lamin moom itamit teew na ci jotaay bi Ahmadou Sarr maamam lañ ko tuddee mais Ahmadou Niass la bu Cheikh Mamadou Lamine maamam Ahmad Sarr lañ ko tuddee moo tax ñu koy wax Ahmadou Sarr cheikh cheikhi wa moulaaye saxaamit deuxième parti premier partie bi nga ñu fekk ci jotaay bi te léegi mu jeex waaye bu ma la ci résuméel dara rek may wax ne sa doomi bàjjen ji sa jaam bi nga war a summi mbaxana mi jox koo xaftaan bi mu sol dana ko jot moom dafa def lu rëy mooy dafa wax ne gannaaw ñun ki gën a mag lañu yàlla jox su ma koy sargal di ko njukkal place bi gën a mag ci ndakaaru laa koy defee mooy grand théâtre mu def ko ci moyen am mu xadami bàyyi teew yeeg sët yeeg doom yeeg njaboot gi taalibe yaa ngi nii góor jigéen ci sa kanam bëgg a dégg lëf lum néew néew walaw qalilan min an kasirin wala min kasirin ci Mawlana wa Seydi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima ma wax ne manuma cee wax lu bëri illaa rek ne man wajatu maxtuutaat wala arama min al maxtuutaat bu ma ci sukkandikoo wax dara ci moom waaye koo xam ne daanaka buñ ko doon bu fekkoon papa Cheikh mooy suma baay danaa wax ne moom suma maam la moom moom ni kon man maa ngi Aliou Diobaye bokk ran man ci maam yi maam laa koy def waaye suma way jur la comme ni mu ko doyee ci yéen ku la mag noonu nag lépp jàll te fekke woo ci dara te nit ñi wax leen li teew te waxoo leen taarix gën a dul leen ma ne dana jafe ci man maa ngi doon wax ci moom di wax ne ku teel a mokkal alquran la di fàttali ni ñi ne wax naa ko ca pasi ne ko sa baay baay laa ji na ne wa fii naa qisaalun shahidatun bi annana ila al arabi araba arba inummi bila nukurin taamal fasahatu al kalami wa hifduna kitaba ilahi al arshi min mablaghi al ashri balaa di moo seen mu ne na ñun arab lañ te am naa ciy seede te li ñu def ñun ñaseen ñi arab mooy seetal niñ fasaaxee ci arab xoolal niñ mën a waxee xoolal li ñuy wax ni muy jubee ma ne foog nag ne loolu du ak tagg wala du ndam yonente Yàlla Haaruna warutoon a nekk ab yonent ndax woo afsahu min lisaanan moo ko may ak yonent làmmiñ rek moo ko may ak yonant kon làmmiñ ci diina yàgg na fi loolu laa waxoon foofu laa tollo tolloon di wax ne sëriñ bi teel naa wëttu alquran kon waxif su naa kitaaba ilaahil arsi ñëwaat na ma ne ñaari ndam yooyu yàlla dajale ne ko ci moom ma ne bàyyi malaaji mooy seen bu doon dund dana ko tabaxal kër ak boppam ber ko bu buggee dëkk mu sancal ko ko waaye loolu yëpp defal na ko ko ndax tey noseeb sëriñ bi mu gën ci loxoom li mag ñi diggéeyoon yëpp a ngi ci loxoom tey tabarakallaahu ni'mal xalifatu ak a baax ak a ñëw fi mu war a ñëwee ak a problème yu bari xam naa bi na fàng rek tax ngeen ay wax muy Soudan waaye su fekkoon dangeen ngeen maa wax loo beneen nit ma wax yeneen yu baree baree baree bëri sëriñ bu gëm xam-xam bu jàng te jàng-jàng lu ku sonn ci njàng ku mën a defar nit ku mën a idaara doom aadama teg ko ci yoonu jub ak baax ak xam mooy Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ma wax la ci dara damay wax xale yi ne man yemut ci suma sëriñ ci ne bàyyi ñesaay woy juróom man daf ma jàngal man man taaha Cheikh Tidiane rahmatullahi alayhi Cheikh Boucar dañ ko daan fekk ci këram gii booba tabaxaguñ ko booba booba mango gi nekk kër maa Ibra Fall fa la daan lal bu tàkkusaan jotee foofu amutoon miir booba sàkket la am su ñëwee mu ñuy jàngal num ñu daan jàngalee imla la ñu doon defal di wax ñuy bind suñ paree mu corriger wala mu jox ñu Maodo ci insha ne dem leen sos arab ngeen indi benn bés benn bés man mi ma bind Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim Abul Faydi noonu laa tuddee Mawdo bi Cheikh Ibrahim Abul Faydi binda binda binda ba foog ne ma sene nag lu ne ma wax ba giix dugg koo si génn ba ma ñëwee rek mu jël big bu xonk rek tàmbalee ko ca kaw di ko xëcc ba ci suuf ak kii ne ma yow du ma la liiral yow sa Mawdo bi moo njëkk a yàqu ah, ma ne patt rek da ko déglu mu jàngal kii gars yi man mu yàqal ma ma ne waa ñes lu tax suma ba sa yàqu mu ne ma barki démb ci guddi maa ngi ànd ak suma xarit diw di dox ci kaas naag gis la yow mii ak bukaar ak diw lu tere la nga neen ca guddi googu bindoo ca li ngay bind ni du sa niveau loolu jotagut ah su ma gis ko mën a yaree moom dégg ma wax mu ne ma barki démb maa ngi dox ci kaas naag ci dakaar ci guddi gis la yow ak Cheikh Bukaar yéen a ngi ànd nii ak kii ak kii yow nga ñëpp ci di bind Cheikh Ibrahim ne mooy abul faydi loolu jotagut ka nga seete woon ca guddi googu laa bëgg nga bind yow nag gaa ñi danañ wàcc waaye doo wàcc fii ngay toog toog fee ñoom ñu ñibbi ma yeewi leen yow nga bindaat ba mu demee laa bind ne his hisbu hisbu israakiya hisbun démocratia ma bind ci politique réew mi na parti socialist parti bu démocratique la bu démocratique mu kontaan mu kontaan ne ma waaw ni dafay dafay bind ci actualité bind ci niwoom waaye Cheikh Ibrahima moo xam ne màgget kam yow xamoo ko dégg nga mag ñi xamaando nag moom jeex nañ nga xëy naan ma danga may bindal Cheikh Ibrahim Niass abul faydi te baayam laa bind de kooku mooy éducateur kooku moo man a yar mu ne ma bindal ci lu sa niveau ne bul bind ci lu sa niveau nekkul li ma bëgg a wax ci loolu mooy jàngalekat bu mag la bind naa ci baayam bu konkal koog big ne ma dara laa ci du liir te bi ma bindee ne euh, parti socialiste parti démocrate la bu bu wér daf ko liir xool ko defaral ma ko ca gannaaw suba sama bind ci football keroog la ma wax ne ma kenn du wax ne équipe nationale fariq la wala isb la loolu duñ ko wax muntaxab la tudd keroog laa door a dégg baatam xam ci moom mosuma xam yooyu yëpp chama yi bu ma waxee ne jàngalekat la xam naa ci dara ndax man daf maa jàngal sëriñ bu koweel jikko la léegi nag dem na Soudan dajale na lim dajale defar na ñam war a defar fàttali nit ñi baayam ah wulu hamidin mooy góor yuqiimu aw yamuru nuurul huda xay su aqaama cheikhu aw xay su mar fu mu àgg si lu rafetee noonu yuqiimu aw yamurru nuurul huda xay su aqaama cheikhu aw xay mar nee Baay Ñas mooy jëmmi njub dëkk bu mu gane ji njub ñëw na fa waaye njub moom njub moom dana bàyyi xay ci place njub moo ànd te jàmm am na moo tax Cheikh Mahi ba mu demee bul sikk sàkke ne ki demoon mooy Baay Ñas ci boppam du xalifaam kese de mooy Baay ci boppam moo demoon wax naa la ne togg gi la yàkkkat bi demoon di séddalekat bi moo demoon di ko séddale wula xamidin mu ne bàyyi ñes fu toog njuba fa toog fu mu romb jàll sax wéy njuba fa ne mooy leer ak njub gi ci kaw suuf leer ak njub goo xam ne fu mu yendu njub ne fa fu mu gane njub gane fa fu mu bàyyee koo bu départ njuba nga noonu dem waaye fu mu romb ci diggante ba mooy ak seen njub la loolu mooy yoonam bi aller retour lépp njub la njub boo ci génnee jàmm njub jeex njub boo ci génnee jàmm njub jeex Cheikh Mamadul Baahi léegi nag dem na ñib si na ndax damaa bëgg a gàntal man nag man nag bi ma ko seetaanee Ali Diop ci internet bi bi ma ko seetaanee nii nii dama <laughs> damaa xaal boo xam ne kenn ma su koo gis dama ko damaa tiim télé bi rek naan ko in kunta lastaani nabii xalifatan kuntal xalifatan abil abbasi wallahi in kunta anil xalifat lasta anil xalifati ani nabi xalifatan kuntal xalifatan abil abbasi dama koo tiim rek di ko joxoñ suma télé bi laay joxoñ di man télévision bi laa topp di joxoñ mel ni ku dof heure buñ ko wanee rek ba mooy jeexee manaan ko naan su fekkee ne doo xalifaab yonente yàlla Muhammad bi yaay xalifaab Cheikh Tidiane Serif du du wax ji benn la xalifaab Cheikh Tidiane kay mooy xalifaab yonent dama ne ko su fekkee ne du yow yaay xalifaab yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ci kaw suuf sa jëf ji tegtale na yaay xalifaab Abil Abbas waaye mooy xalifa ab abi isaaqa yi tamit mooy xalifa ab abi isaaqa xalifa ab yonent bi sallallahu alayhi boobu nag xalifa ab Cheikh Tidiane boobu nag xalifatu saahibul fayda boobu nag muy Maulana Cheikh Mamadul Maahi yal na guddal fanam yal ko fi yàlla daaj wax leen amiin nit waxut amiin lu ëpp li ma wax yal ko fi yàlla taaj yal ko yàlla may wér yaram. waaw koo xam ne bu toogee jox la ndam bu tukkee jox la ndam bu ñib see indi la ndam jarta wax amin yan na fi taa yàgg waay kook yan na fi yàgg waaye ñun sëriñam ndam bi lañ xàndat sëriñam ndam bi sëriñ bi nga xam ne ndam rek dama am sama benn xarit bu yoo xam ne bi tey ndam rek ma ne eh, waxoo ma de waxoo ma de kay ànd ndam rek kay mooy Cheikh Mahamadul Mahi yow ki war a am ndam waxu ko bi mu demee liggéey li baayam waxoon baayam daf ne usilu xilaafan bayna qawmi fa yajma'una tawxidu fi kulli mawdi'in man xuute bi nekk ci jullit ñi bokk na ci li ma yàlla bindee ak sama mission mooy dindi ko ci ni ñi effacé wuute jubale nit ñi xeetu yonente yàlla Muhammad kenn dootu juboo xëdi ne ñëpp juboo bàyyi na ne loolu moo ko tax a jog loolu day wax dëgg yàlla wuute gee nga xam ne mën na fukki at ak juróom ñuy rayante bakkan deret yi di tuuru cheikh bi dem fa def lim def ku ne xam na ne xalifa bi jël na mission bi ci loxol baayam yore na ko moo tax ma ne bu doxee xalif bu duwul xalifaab yonent di xalifa cheikh duwul xalifaab cheikh di xalifaab baay bu mu ci do ci ñett mooy ba ca ñaaree ca des kon xalifaab baay la xalifaab yonent la xalifaab cheikh tijaani la chérif radiyallahu anhu baay dafa ne uute gi ci jullit ñi ñoo ma tax a jóg xeetu yonent la maa ma tax uute gi ñuy uute laa bëgg a dindi jubale leen bu ñu ti Soudan jël na ci cëram barki démb yan na ci Mali jël cëram yenn ci beneen réew jël cëram réew yi ñu wër yëpp ci Afrique ba ci bitim réew ba ci àddina yëpp yanna lépp réglé woo ci loxol sëriñ bi ridwanullahi taala te la yàlla di def sax ndax bam ñooy wax ne ñu haddamtu alladi qad asasuhu wa inna nii bi siril muxafa laa yuhaddu binaa yi booba yëpp xew a guddee loolu ca koosi ju njëkk jala bàyyi ne caaxaan fond ci àddina bi yëpp danaa ko daane fondement yi caaxaan yi ma fekk ñu tabax ko ba ñëpp seen ko foog na dara la man Ibrahima Niass danaa ko mabbu man fomi ci àddina bi danaa ko fi jëli li ñu réyal di ko jabolise bañ foog na dara la danaa won ni ñu du dara ñu ne ko looy def mu ne danaa samp dinaa yonente Yàlla sallallahu alayhi wasallam samp mbaax samp alquran ak sunna ci xoli jaam ñi nit ñi xam yàlla xam tawhid te suñ ko xamee ma sampu nag samp bu kenn du daaneeti xam ngeen ne 37 genn ak góor taseeg bàyyi ñes radiyallahu anhu ca xayfu minan wax ak moom lañ wax ak moom bàyyi déy ko lam ko déy mu ñibbi yëf yi di dox ba 22 1922 2022 2022 ren gi sëriñ bi dellu fa def lim def xam ngeen ne kii xaama ku samp may daanu waaye yox yoxi wut sax bay daanu moom bàyyi de moom bàyyi de moom fondement bi ma ne ganaar gu koy kis sax xamut waxuma la ak nit ku koy daane noonu na nag fondement yi yëpp danaa ko yàq ndax fondement yi foog caaxaan yi la wax ñu fondement seen yëf yëpp ci ay bidaa ki foo ki caaxaan ak tappaleeg nax nit ñi danaa ko daane danaa ko mabbu yëkkati fondement bi kenn dootu daaneeti ñu ne ko boobay ban mu ne fondement bi l'islam fondement bi alquran fondement bi diina fondement am mbaax fondement njub ak jubale ci laa koy taxawale axiran maa ngi jeexal léegi ndax waxtu wi jeex na walla sori na te Cheikh Ibrahim lañ bugg a jox kàddu gi moom mi fi dajale nit ñi di wax nit ñi ne leen euh, safiru rasuli fil kainaati mooy baay cheikh maa yi bërki démb mu won ñu ne ñu xarfan bi xarfin maa ko doon loolu lay tëjee nag ci moom ak ci waxi Soudan te man nag damaa yaakaar ne ñu bëri seetluwuñ loolu bi mu agsee gannaaw bu mu xàbbee laam ci baay lettre bi ñuy wax laam ci arab moom la abbu ci baay bi muy dem suudaa baay daf ko abal benn lettre bu tudd xarfu laam jàngkat yi laam laaj leen mooy lan li yan sura diinan laa ya laa laa yuridu laam la ko baay abal dafa dem di dimbale diina sans guerre baay dafa xam ne yonente yàlla ma dama koy dimbale dama koy liggéeyal mais liggéey bi du am guerre danaa liggéeyal yonente yàlla ba suma liggéey bi dana bàyyee koo sowu ba fa penku yem ba ca Xuraasana noonu la ko baay daan waxee dana fa àgg yóbbu fa woote bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te du am guerre du am xeex paaka du génn jaasi du génn dara du génn Cheikh Maay bi muy dem mu abbu baayam xarfu laam mooy li yan sura xarfa xarafu la yóbbaale diinan laa yuridu xitaalan mu dem ne leen hee waa ji ngeen àndal jox ko seen rox yi léegi nag danaa la wax dara li tax Cheikh Maay am réussite nag laa lay wax keneen bu demee du ko am muy dem xam nga lu tax loolu nag du defee ak tooñ tooñu ma kenn xam nga lu tax du ko ñi doon dem yëpp Nations Unies Union africain ñeneen ñi xam nga lu ñu doon waxat jëmm lañ doon waxat Cheikh Mahamadoul Mahi dafa fekk ñu jox bàyyam roxo yi te roxo mooy commandé xol commandé jëmm sëriñ bi commandé roxo yi lañ moo demoon ñi fa doon dem di régler wax nañ dëgg jëmm lañ doon régler jëmm dafa bëgg xëccoo du nangu da ngay sonal sa bopp du nangu jëmm dafa bëgg maa ko moom jëmm dafa bëgg maa ko moom loo fa yàgg-yàgg dara du sotti demal yooyu yëpp jëmm bëgg ko mënta ne mënut mënoo am kii baayam la gaa ñu sujjootaloon jox ko roxo yi naa sëriñ bu baax bu ñu wax Tidiane Ousmane wax baay bu yàgg ne ko li nga ni nga mel manoo koo ñàkk a mel ñes ndax yow mii mu ne ah, mu ne ko yow de xanaa xamoo ne borom daraja yi borom xol yi borom martaba yi yow lañ nërmelu ci sa yaw yow lañ su jootal comme ni nga xamee ne su jootal na la al ardu wal alaamu buggumaa guddal ci arab bi yow ni la suuf nangulee suuf si la nangul yow yow suuf see nooy ci sa kanam yow bàyyi yow suuf si moo amatu ci yow wala alaamu ak doj yi ci kaw suuf si doj yi nangul nañ la suuf si nangul na la xamoon naa ne borom martaba yeeg borom daraja yi danañ la nangul xamoon naa ne buur yi ak yi dañ nangu Tidiane mooy wax loolu bàyyi ca 34 1934 sama Tidiane Ousmane ca Nigéria loolu la yàlla sëriñ bi moom lañ li ñu jox roxo yi ña doon dem jëmm yi lañ doon waxat moom mu dem wax li supérieur jëmm muy roxo roxo wax ak wax ak jëmm yi gaa yi na nangu nañ delloo nga nay Cheikh Mamadou Mahi bi mu ñibbisee nag si la wone li baay waxoon baayam waxoon ne su ma dindee wuute damay boole nit ñi ñu nekk benn ci tawxiid ci ci bennale nit ñi te loolu li ko man mooy laa ilaha illallah bi mu ñëwee premier discours bu mu def biñ ko joxee micro yi laaj ko ne ko ndam li mu ne bu leen waxati suma ndam man aw ma ndam ndam li ndamal Sidi Hadji Malick la ndam li ndamal Serigne Touba la Cheikh Amadou Bamba ba yi lay ak maamam ndam lii ndamal Bukunta la ndam li ndamal Serigne bii ci laayen la limaamu la ndam li ndamal borom canaba la amba di ndaak sekk commencé di lim mag ñi seetal li ma la wax ci internet bi wala fu la neex da nga fekk ne Maam Alaaji Abdoulaye Niass daanaka moom la mujj a tudd door a tudd baayam tudd mat Ahmad Bamba borom Touba tudd ñoom ñëpp ne ndam li seen ndam la tudd Cheikh Ahmadul Fuutiyu xutbu bu mag boobu yaakaar naa sax moom la njëkk a tudd ne ndam yi ñoom ñoo ko moom door a tudd baayam door a tudd keneen aha lii la baayam waxoon nag lii la baayam waxoon fa yajma'u na tawhidu xam nga ku bëgg a leen nit ñi bay dem Soudan de defare doo ñëw Sénégal de par parlanto naan ah, waaw xam naa danañ ko am ndax bàyyi moom nangam bàyyi du seen morom diw nangam yooyu suñ moo la yooyu suñ wax la ñun suñ langage la waaye ki sëriñ bi defar moom loolu du mën a nekk langage am dañ koy déggee ne Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass moom defar a bàyyi la moo tax gis nga bi mu yee dafa jébbal yëf yi ñëpp moomale ko ñëpp ndax liggéey bi tuddul liggéeyab tarixa sax li muy rey rey du liggéeyab tarixa de liggéey bi liggéeyab lislaam la liggéeyab humanité la liggéeyab nit ni nit nit yow la nit nit ni yow la doon defar la defar yi liggéeyam jàmm sax ci àddina bi la te wax na la ci gannaaw ne baayam gannaaw mooy cheikhul islam dëgg dëgg dëgg fu jàmm ne rek war naa bokk ci ñoo ko fay wesaare te baay waxoon na ne danaa wër àddina bi mel ni ko yoree jihu ñu ne ko jihu wi lan la mu ne jihu wi salaam lay tur dama ko bëgg a wisaare ci àddina bi mel ni ko yëg ci hélicoptère rek di sotti ni ñi ndox mu ne li may sotti nit ñi bu kenn daw jàmm rek laay sotti nit ñi kooku mooy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu pacte boobu lim ci def bari na jotaay bi mayewut ko Cheikh Mamadou Mahi lii laa ci a wax ngan gaa ngi noonu ñëw na séddoo ko ay bokkam wala sax jébbal leen ko ko xam teraanga dëgg noonu lay def yàgg naa wax ne maa idatul karamati nit du ko teg tim ko de ko lekk yow kenn koo gis mu teg taabali teraanga loxoom kese nga fekk ko ca waruñ ko woon a jox teraanga sax moom kii nag war nañ koo jox teraanga mooy borom teraanga bàyyam nun la meloon moom nun la mel bi mu ñëwee rek mu ne réew mi yëf yaa ngi noon kenn ku ne sa kër mu sédd la boo bokkee kër si daaji maali mu ne la yaa ko moom nga ñibbi di bëgg boo bokkee kër Cheikhul Khadim ñu la yow la Baye Cheikh Omar Fouti ñoom ñëpp suñ maam yu baax yooyu mu delloo leen yëf yi ndax dëgg-dëgg ñoom ak baayam yeeg maamam yi ñoo fi nekkoon di liggéey lii te liggéey Soudan bi du kenn lu mooy bàyyi mi nga xam ne doom la ci doom yi ñooñu doom la ci ñooñu dégg nga mu liggéey liggéey boobu ndam li del si at Sénégal del si ci àddina yëpp del si ci l'islam waaye man xam naa ne moom li ko ci gën a ñor rek mooy l'islam l'islam rek ko ci gën a ñor waxam yëpp loolu la waxam yëpp loolu la l'islam rek la loolu laa bëggoon a sànni ci kàddu di jox sëriñ bi Cheikh Ibrahim bu defee discours am ba pare euh, ñiñ tuddee bis bi kenn ku ne danaa wax ne yaay diw rek nit ñu dégg ko ñu joxe cadeau yi am na cadeau yi ñu fi joxe waaye dama bëggoon bala sëriñ bi wax ñu jox monsieur le député Yoro Ba Yoro Ba son excellence ñu lay ñaan nga yéeg fii ci kaw honorable député nga yéeg fii ci kaw Euh, dem ci micro bële ki yore kii bi na ko yóbbul micro mu sànni kàddu goo xam ne mën nañ ko tuddee kàddu population bi yëpp ndax euh, pencam réew mi moom ndawi réew mi ku fa ne ndaw kàddu nation bi la mooy chambre bi yëpp mën na naay wute mu se Ba mu ngi noonu mu monsieur Yoro Ba di député assemblée nationale bismillah kàddu gaa ngi noonu sa xarit Cheikh Ibrahim sa rakk sa lépp moo wax ne nga wax incha allah nuyu ñëpp di sant di ziar ñëpp di delloo ziar kilifa aada kilifa diine ñi fi ak mbokki islam yi ci teew di leen delloo ziar di leen dolli ziar euh, di rectifier tuuti rek euh, ki ñu doon introduire léegi pour ne bon comme nee na député laa dama naan rek bu waxoon chargé de mission auprès du président Macky Sall kooku moom noonu la boo xam tamit membre du cabinet présidentiel dañu naan noonu mais di ko gërëm di ko sant ci euh, historique joxe euh, li tax nag tey ñu fi tànk ñëw fii mooy wuyu si wuyu si mu nekk Cheikh Ibra Ibrahima Niass mu nekk Cheikh moom moom ñu fi invité ñu suñu kilifa ñu euh, wuyu si aussi ah yaa Seyda yaa Seyda Mariama Niass je pense que ki doon introduire wax na ko euh, buñ ne taaru moom la buñ ne barke moom la ak i waajuram yu sell yooyu ah, maanaam dina am jafe-jafe tuuti parce que vraiment prévoir woon def discours ne dinaa ci wax parce bi mooy bés bi tey bi Barham Day Corporation woote bés bu rëy la bés bu rëy la ci Sénégal ndaxte nit ñi gaa ci sargal ah, sunu njiit bu sell bi sunu bu tedd bi muy Cheikh Mahdi woote moom Cheikh Ibrahima Niass ci la paix ci jàmm jàmm la paix donc moom bu wootee pour que ñu jugal sunu sëriñ Cheikh Mahi sunu sëriñ Cheikh bu waxee dañ ko delloo mu gën vraiment dañ ciy sawar dañ ciy sawar bu fekkee ne waajuru Cheikh Mahi ñoo ko fi defoon fële ca mu nekk presque deux cent millions d'habitants ñoo ko fa defoon fële ca Égypte ah, mu nekk près de cent millions d'habitants mais aussi moom Cheikh Mahi moom mi nga xam ne moom moo dem ba Soudan wax ko ci kàllaama comme ni ko présentateur bi waxee sànq ci arab yu sell ba convaincre une population de près de quarante millions d'habitants pour que ñu ànd ci la paix loolu lu rëy la loolu sénégalais ak foo mën ci bokk ngay chrétien ngay jullit ak taarix boo mën ci bokk dafa nekk sa fierté bopp parce que doomu Sénégal Euh, moom moo def vraiment jaloore bu rëy boobu nga xam ne buñ doon wax ci nasaraan vraiment mérite na prix Nobel de la paix loolu vraiment euh, ñoo ngi ci àndaloo ak tous les organisateurs nga xam ne corporation pour delloo njukkal suñu njiit vraiment suñu waxi euh, wasila mu di Cheikh Mahi loolu bépp Sénégalais ak foo mën ci bokk su fekkee beneen Sénégalais dafa dem bitim réew à l'international vraiment dafa ay jaloor ñun ñëpp opposition comme pouvoir ñoo ci war a am te def euh, keroog en tant que président de l'UEA boolee tous les donc euh, di dox jàmm di dox yoon dem rencontre ji Poutine Poutine ñi nga xam ne bi yeneen président yu tubaab bala ñoo ñaan audience yi moom nañ ko bàyyi xel waaw donc mu dem fa wax la muy wax dellu si ba nga xam ne bii Afrique bi yëpp mission ba fa demee woon am na ci ndam ci jàmm mais aussi indaale as euh, ay milliers de tonnes nga xam ne moom la wax blé donc nañuy xool ci suñu njiit yi nañuy roy ci suñu kilifa aada nañuy roy ci suñu kilifa diine yi. déglu leen surtout jullit ñi nga xam ne ni saa boo julee il faut nga wax la moom salaat mooy jàmm ci bés bi nga wax fukki yi ci weer bi nga ko wax téeméer ci at bi bi nga ko wax junni donc ñun salaam salaam la xam Sénégal jàmm la la xam jàmm la xam ba ko tuddee ay jàmmalekat jàmm la xam salaam di ko tuddee ay nit jàmm la xam di ko tuddee ay kàtt donc loolu nag. il faut ñu gën ci bàyyi xel te ñun jullit yi aussi sama alluwee soriwul mais sànq maa ngi xool ci sama portable naan ban saaru alxuraan laay ministre affaire bi far yàlla wax ma ne albaqara boobu suuraat deux verset deux cent huit voilà euh, sunu borom moom moo moom moo nit yi ô vous les croyants vraiment répondez et œuvrez pour la paix seul Satan est votre ennemi waaw donc seytaane rek moo war a nekk sunu noonu mais ñun suñu mbir bopp waruñu di bañ a guddal di wax vraiment yéen ñu tedd yi yéen sëriñ yi fi teew ci bépp tarixa teew fi tey ci bés vraiment di leen ñaan ngeen ñaanal ñun sénégalais yépp par rapport ak élection yi ñu jëm pouvoir comme opposition ñu ànd ceeg jàmm dox ceeg lépp dem ci jàmm ba nga xam ne vraiment au lendemain des élections ñun ñëpp dañuy wéy ci jàmm ngeen baal baal merci macha allah macha allah kàddu gi rafet na trop waaw kooku mooy honorable député Yoro Ba conseiller la auprès du président de la république moom bon li ma waxoon dëgg la su waxee nation bi yëpp mën na leen a waxaaleel bu waxee gouvernement Sénégal na nañoo wax ne kàddu moo doon jàll léegi ndax yooyu moom ku ko du ci réew rek doy na sëkk yoro kontaan nañ trop sëriñ bi dana ci ñëw léegi ci kanam ci yow waaye xarit bu baax nga moom itamit Cheikha ku teel a ñëw la daanaka moom it ci ñi fi njëkk la bokk parce que ñoom dañoo respecté heure bi mu gisee huit heures quinze heures rek moom dix heures fi la ko fekk ku ku ku ku ku teel a ñëw la waaw waaw léegi nag ñu ngi jox kàddu gi jàng discours jar na ko waaw léegi 15 euh, minutes lañ dese te sëriñ bi war na ci wax euh, sëriñ bi war na ci wax te 15 minutes lañ dese Cheikh Ibrahim Seck président Ansaaru dana nuyu bàjjanam ci une minute deux bëggoon nañ parrain yi kenn wax ci seen tur waaye dañoo wax ne loolu xaamidu <laughs> Cheikh Hamidou bañ na ah Cheikh Amadou xam nga sa baay Cheikh Hadj Abdallah ah Cheikh waaw mu ne Cheikh Baye Cheikh mu ne yow mun nga loolu yëpp yow booy wax rek yaay waxaale mu ne ci parents yeeg yëpp euh, Cheikh Babacar Diop maratal uxra ñu ngi lay ziara di la nuyuloo sëriñ bi di la wax ne ñun de ci dëkk bi lañ dëkk waaye dara dalul ñu te suñu bët yaa ngi xool te amoon nañ kilifa bu yàgg waaye bi ñu ko xamee léegi man nañ koo seddal liggéey bu rafet ci baay te ku ma xam man de xam ne mu jaamala ci ay mbir du suma yëf waaye Cheikh Mahamadul Mamoun Insa Diop dëgg-dëgg bu fekkoon am nañ ci lu bari jotaay yi danañ gën a taaru fayda bi dana gën a ball ndax liggéeyam rafet na te dafa ànd ak calme ak sérénité bu yéeme loolu moom waxi waxi waxi pay bi la Oustaz Faye benn muqaddam ñu ne mu ngi toog ci jotaay bi Oustaz Faye Oustaz Oustaz ah Ousmane Faye xam naa ko bu baax a baax kooku Medina la dëkk fa la yaroo moo moo ñu ne nekkoon ñu ngi lay nuyu tamit waaye lii moom maa ko doon borxor rek di la wax na la taalibe bàyyi gërëm nañ kontaan nañ ci doxinam Cheikh Mahamadul Mamoun Issa Diop lu tax mooy yëf yi dafa àndut ak biir wi waaw àndut ak biir wi te ñu ñun de déggaguñ dara ci seen xadara boobu lu dëppoo wut ak te man de ku ma déggal lu bàyyi rek dalut dañ tase ma ak yow ak koo mën te loolu dalut ma suma diggante ak moom dalut ma diggante moo keneen ma xam ne moom daal bokk na ci fursaan yiy liggéeyal fayda Cheikh Ibrahim ak muqaddam yi yëpp itamit nag ñoom ñëpp sëriñ baa ngi wax léegi ne ma sëriñ baa ngi may wax léegi ne ma euh, sëñ Babacar Ndiaye sang Barhama bëggoon naa ñëw waaye dafa am lu ko empêché te ñoom ñaar gisante wuñ bi muy yëgle téléphone rek lañ jotante mu ne ko incha allah danaa ñëw waaye dafa dem Gàmbi gunge ji sëriñ bi te wax dëgg yàlla loolu it mooy liggéey bii rek benn liggéey bi la bale sax moo gën a mag bii wax dëgg yàlla bële bii moom ni muy mag mag bële ko gën a mag kon moom itamit jazaawulaahu xayran sëriñ bi ne na lam ko waxoon xam na ne ca la ndax danaa teew mooy dana teew rek teew na fam teew noonee la ba léegi mooy mooy jotaay bi rek sëriñ bi Cheikh Ibrahima Niass la ñuy jox kàddu gi duma ma guddal ci moom liñ ci xel li ngeen ci xam laa ci xam moom itamit ndax lu teel a jàng la am xam-xam limal na ma ñeenti yëf ne ma benn bu nekk ingénieur laaj loolu du njàngam caaxaan de ñeenti yëf la ma limal ne ma benn bu nekk topp naa ko ba nekk ci ingénieur ndaw ndaw yu mel nii dañoo mat a bàyyi xel ci pays bi ndax itamit wax dëgg yàlla wax baax na organiser baax na def yëf baax na waaye fim mu ne réew mi ak àddina bi dañoo tollu di xaar fayda bi mu woon leen la ñu bàyyi laajoon aruni xabasa la lañu bàyyi laajoon léegi àddina bi dafa toll ci ami diplôme dafa tollu ci am xam-xam Cheikh Ibrahim Niass yaa ngi nii cheikhaa ngi nii ñëw taaral jotaay bi sa bokk yaa ngi muqaddam yaa ngi ñëpp ngi ànd ak dal di la déglu waaye li ñu gën a neex te bëgg nga waxal ñu ko lan mooy ba Barham Corporation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 bokk ci bi di sant ki nga xamante ne nag mooy suñu yaay teew fii ci ndigalu xalifa bi muy Seyda Mariam Ibrahim Niass miy toog nga xamante ne wax dëgg mun nañ ni mooy marraine Barham Corporation bëggoon naa nuyu ñëpp benn benn waaye temps bi daf ñoo xoj di sant ki nga xamante ne nag mooy oustaz Cheikh Ibrahim bi tey nga xamante ne nuyu na ñëpp kon damay dugg directement ci li tubaab bi naan le vif du sujet di ko tàmbalee ci ki nga xamante ne mooy Seydi Mawlaya Cheikh Mouhamad al Mahi Ibrahim Niass nga xam ni waajuram Cheikh al Islam wa saadatul anam alxaaji Ibrahim Niass dafa waxoon ne uraani bil yu yuassisu dawlatan We're going to build a country when Sheikh Mohammed Mahi Ibrahim Niass became the Caliph of Medina Bay. Nous allons bâtir un pays lorsque Sheikh Mohammed Mahi Ibrahim Niass devient le Caliphe de Medina Bay. Cheikh al Islam Saadatul Naam Ibrahim Niass waxoon ne bu ñu demee ba Cheikh Mohammed Mahi Ibrahim ñas toog doon Caliphe bu Medina baay maa ngi leen di xamal ni dinañ tabax réew waaye li yéeme mooy ñun dañ doon xaar fii deux ans trois ans waaye sëriñ bi dafa toog rek tabax réew nan la ko tabaxee dëkk bu mel ni Soudan nga xamante ne ay ati at nit ñaa ngi reyante nit ñaa ngi xeex nit ñi amuñu jàmm moom mu dem fa indi fa paix jiboole askan yi delloo fa loo xamante ne teneur Nations Unies teneur Union européenne teneur Union africaine ba ci suñu président yëpp tëna leen kon nag mu delloo jàmm ci Soudan nga xamante ni yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man qatala nafsan fa ka annama qatala annaasa jamian wa man ahya nafsan fa ka annama ahya annaasa jamian the one who saved a life is just like he saved the whole entire world and the one who killed one life is just like he killed the whole entire world celui qui tue une vie c'est comme s'il a tué l'humanité entière et celui qui sauve une vie c'est comme s'il a sauvé le monde entier yént bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni képp koo xam ne da rey benn bakkan benn bakkan la wax waxul jullit waxul chrétien waxul animiste ku rey benn bakkan rek dafa mel na ngaa rey adduna bi yëpp waaye itam ku fexe ba sauver benn bakkan dafa mel ni da ngaa sauver àdduna bi yëpp Cheikh Mouhamadul Mahi ñaata bakkan la sauver Soudan kon kooku ca dëgg-dëgg tabax na réew waaye ma bëgg ci nettali benn histoire bu ndaw boo xamante ne jamono Mawlana Cheikh al Islam ba mu demee fi nga xamante ne mooy Soudan dafa am benn waaye boo xamante ne moom jullit la ku gëm diine la waaye nag askanowul ci benn kër diine ba mu yégee nii Mawlana Cheikh naa Islam ñëw na Soudan mu ne kii nag moom it faut ma gis ko parce que kii bokk na ci ñi nga xamante ne li ñuy wax ci yenent bi dafa ëpp bàyyi tey mun nañ li muy wax ci yenent bi mënoo ko dégg feneen moom da koy yóbbu yóbbu ba mu kawe waa ji mu jaral ko mu jóge foo xamante ne mun nañ ni journée bi yëpp da ko daw pour ñëw fekk bàyyi fi mu nekk ca Soudan ba mu ñëwee mu ngi yegg si timis mu fekk fu fees dell ak nit mu xuus ci biir mbooloo bi ñëw ba fexe taxaw ci ginnaaw Mawlana Cheikh al Islam ñëw rek ñu war a julli timis ñu liqaam bàyyi kabar tari fatiha dem direct ci xulaasu rabbi naas te xam ngeen charia dañuy bëgg nga commencé ci kaw di wàcc donte yàqul dara ci julli bi mais day gën a rafet rek mais bàyyi dem ci xulaasu rabbi naas commencé xulaasu rabbi naas maliki naas ilaahi naas waa ji taxaw ci kanamu Baye doon wax ni Baye day yëkkati yenent bi di ko yóbbu ba foo xamante ne kenn du fa yóbbu nit kooku daal ni ci xelam xoolal rek li may waxatee ngi nii ah ñoom daal charia bi sax pour ñu teg ko ci yoon 100 pour cent sax tëna ko ba pare mu bëgg di wax lu ne ci yenent bi Baye ba mu demee ba ilaahi naas Baye yemale fa saar bi kàbbar rukkoo te óomam julli benn rakka bi indi deuxième rakka bi tari fatiha yeggali ilaahi naas min sharril waswaasil xannaas ba saar bi jeex waa ji taxaw ci ginnaaw bàyyi daane hee man nekkati juum naa de kii rek a xam sharia bàyyi dafa sëlmal koo xamante ne bàyyi mos koo gis tur na rek jox ko loxo nuyu ko ne ko Mouhamed Jarma jaar ci tur waa ji ne ko luy jax-jaxal sa xol bi xanaa dëñ na waa ji yuuxu ne ko laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa anta waliyullah dëkk boobu nag jamono jii foofu la doomu Mawlana Cheikh al bi nga xamante ne bàyyi ne woon na ko uraani bil maahi yu assisu dawla Cheikh Mouhamadul Maahi dina tabax réew foofu la dem indiwaat fa jàmm ak salaam ba nga xamante ne alhamdulilah ñëpp ngi ci jàmm ginnaaw loolu temps bi moo ni xoj mais bëggoon nañ projeté ay projet Barham Corporation dugg ci ba sori lool waaye nag temps bi moo jeex daanaka. dañuy wax ni Barham Corporation dafa am lu bàyyi wax ni nit bu ko xam dina tax mu xam lan moo tax yàlla indi ko ci suuf bàyyi mu ne aaya bi dafa ne wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin di didn't create the mankind like someone who don't eat and they are not immortal on n'a pas créé l'humanité comme étant des gens qui ne mangent pas et ils ne pas immortels aaya mu ne nañ xam ni doomu aadama yi yàlla daf leen a bind ñu doon ñoo xamante ne dañuy dee bàyyi mu ne képp koo xamante ne da ngay dee war nga waajal sa ëllëg waaye itam aaya mu ne doonu ñoo xamante ne ni du ñu lekk bàyyi mu ne képp koo xamante da ngay lekk kon da war a liggéey loo dundee donc bàyyi mu ne ñaar mooy mission ni ci kaw suuf jaamu yàlla pour ëllëg waaye itam liggéey dund lu lew loolu mooy fondement wu Barham Corporation Barham Corporation dafa am office Euh, Barham office mi ngi composé wu ci différentes structures am na Barham contrôle am na Barham organisation Barham communication Barham finance Barham business intelligence Barham vision te ñii ñëpp pàcc bu ne rek ku ko diriger ingénieur la ci domaine boobu. ñu taxawal benn projet boo xamante ne macha allah monté nañ ko en 3D bëggoon ko projeté mais dafa am problème ak projection bi projet bi mi ngi tudd Barham Oil muy station boo xamante ne supermarché bu tudd Barham market dafay am fast food bu tudd Barham food dafay am foo xamante ne transfert d'argent lañ fay def war a tudd Barham cash boo boolee lépp mu doon Barham oil li américain naan all in one loolu war na mën a employé lu mu bon bon 37 employé bu njëkk wi ñu ngi koy def Kaolack incha allah bu ñu paree boobu dina jur yeneen mbir kaw Kaolack bu ko defee ñu tasaare ko biir Sénégal nga gis ne boobaa dañuy fekk si le président monsieur Macky Sall ci li nga xamante ne moom la bëgg mooy l'employabilité de la jeunesse buggoon nañ ci gën a xóot waaye itam xam naa fa laa koy yemale ndax temps bi léegi moo koy tëjee lii Baye waxoon ni ndaw yi ñooy ëllëgu réew bu ne baay dafa ne inna mustaqbala kullu watanin innama yatawaqqafu ala shubanihi ولكن لا على كل شبان بل الشبان المثقفين ذوي الأخلاق الحميدة والهمم العالية أما الشبان بلا ثقافة ولا أخلاق فغرس بلا ثمر The hope of a nation reposes on its young, but not on youth. Rather on that which is cultivated, well-educated, and ambitious. On the other hand, the one which is not taught, nor educated, is just a plant without fruit. Mawlana Shaykh al-Islam wa sallallahu alayhi wa sallam mu ne L'espoir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais pas sur n'importe quelle jeunesse, plutôt sur celle qui est cultivée, bien éduquée et ambitieuse. Par contre, celle qui n'est pas cultivée ni éduquée, elle est juste une plante sans fruit. bàyyi mu ne nañu xam ne ëllëgu réew bu ñu gis mi ngi nekk ci ndoddo ay ndawam waaye bàyyi mu ne waxuma ndaw bu ne de ndaw boo xamante ne jàng na ndaw boo xamante ne am na xam-xam ndaw boo xamante ne am na jikko bu rafet ndaw boo xamante ne am na bàyyi mu ne ñooñu ñooy ëllëgu ndaw boo gis mu ne ndaw boo xamante ne yii ma wax nag amu ci benn kooku day mel ni meññet boo xamante ne amul njëmbat wala jëmbat bu amul meññet loolu amul sens kon bàyyi ni ñuy ñaax foofu pour ñu gën a am yitte bàyyi mi ñuy ñaax pour ñu gën a wut xam-xam waaye itam bàyyi mi ñuy ñaax pour ñu am ay jikko yu rafet mbokk yi buggoon naa gën a yaatal mbir bi mais temps bi nag moo jeex di santaat ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi fi teew ah, di sant bu baax oustaz Cheikh Ibrahim Bitey mi nga xamante ne tudd na ñëpp sant na ñëpp gërëm na ñëpp imaam ah, Cheikh Mouhamed mi nga xamante ne mi ngi nekk ah, almadi moom itam teew na waaxiru daawaana alhamdulilah wa salaamaaleykum wa rahmatullah bëgguma gëdd Barang saya Cheikh Ibrahima kaddu jaleetu Ansaarul Diin euh, may laa leen wax léegi lay waxtaan ak sëriñ bi mu ne ma xamal ko ne ko benn jamee moo am mooy Diin lu nit formé rek farmalu ci Ansaarul ci Ansaarul Diin ku mën a def dara defal waaye xamal na lépp ci Ansaarul Diin la bismillah boobu mooy président bu Dakar waaw Cheikh Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla guddal fanam may ko wér ndax jeunesse bu mel nii la doon Maulana Cheikh Ibrahima Niass di ñaan e, ñun nag bu ñuy wax fii dañuy njëkk a nuyu Cheikh Mouhamadul Amin wakilu daad moom mi nga xam ne mooy représentant xalifa bi fii ci dakaar mu jël nuyoo bi tegal ñu ko ci loxo Maulana Cheikh al Islam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimul umma ambassadeur international de la paix Cheikh Mouhamadul Mahi moom nga xam ne moom lañu doon wax barki Dembo Ndiaye monsieur le président Amadou Baro euh, Adama Baro dalal na ko waxtaan nañ lu bari ci relation diggante Sénégal ak Gambie nit la koo xam ne nii boroom ñaan la yii muy dox nii yëpp ñaan ak ndigal moo ko may dafa ñëw Dakar benn waaye na ko sëriñ bi discours bi nga wax ci dakaar ndax da am ay mustachar yu baax ay conseil yu baax yu la ko wax wala lan parce que discours bi discours chef de l'état la ñu toogaat ak directeur cabinet président ci présidence de la république mu ne ko discours bi nga wax barki démb fii ci Dakar discours chef de l'état mu ne ko kenn mayu ma ko damaa dimbali ko julli ak ñaan yàlla ma ne ko yàlla loolu la wax saayino bi sabri wa salaat kon yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér Soudan boobu nga xam ne Cheikh Ibrahim moom la doon wax léegi barki démb boo njaay vice président bi nga xam ne moom la ñuy wax ti mooy vice président réew ma barki dem bu la dem pour signer accord yooyu pour dëggal li nga xam ne sëriñ bi tabax na ko fa bu ñu koy wax Darfour mën nañoo wax comme nga ne région Sine Saloum Darfour vingt cinq million d' habitants lañ vingt cinq million d' habitants yëpp vingt yëpp ay taalibe Baay Ñas lañ vingt yëpp Darfour amul ku dul jullit ñëpp ay jullit lañ waaye ci ndigal bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy demee bi mu taxawee Darfour la ñëpp ñëw taxaw ne ko ñun pare nañ pour bàyyi lépp luñ nekkoon tijji page bu bees pour Soudan jëm ci kanam nim ko defee ci Darfour noonu la ko defee ci dëkk bi nga xam ne ci Soudan euh, ci Nigéria ñëpp xam nañ ni mu mel ak ni tàngee ci Boko Haram mu taxaw fa wax ba nga xam ne ni zamfara ku ku dégg zamfara rek li ngay njëkk a wax mooy Boko xaram bi mu defee gàmmu gi ba taxaw ba wax discours am boobu gouverneur bi ci boppam moo ne ko semaine yi jàmm duñ am maa ngi ñaan yàlla déwén gàmmu gi képp bi la war a nekk waaye maa ngi ñaan yàlla nga defaat ko fii ci zamfara kon nag yal yàlla guddal fanam may ko wér euh, ñi ngi ndokkeel bu baax sunu yaay sunu sëriñ Cheikha Mariam dëgg-dëgg saydaa mi dañ ko war di ñaanal yàlla ndax itteem moom mooy jël ndaw ñi mel ni ñun di ñu teg ci yoonu Cheikh Ibrahima Niass nit la boo xam ne ku nekk rek mën na koo tardeel ci yoon kon Seyda ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan may la wer ñu ngi ñaan yàlla nag Sénégal gi jàmm wàcc fi ñun amuñ lu dul Sénégal Sénégal lañ am bëgguñ mu yàqu Sénégal suñu njaboot yi Sénégal lañ bëgg ñu nekk ndax dëkk bu Cheikh Ibrahima Niass ñun bëgguñ beneen dëkk bu dul fii ndax gis naa mag boo xam ne ci Soudan lu ma wér ba wér juróom-ñetti fukki atam yi man na dafa ñëw sukk sama ron dem ma bu nga ñaanal ma yàlla ma dem ziyaare ji Kaolack ñun fii kuy ñaan lu yàlla nga dem ziyaare ji Màkka kooku boo ko joxoon cinq millions pour mu dem màkk mu ñëw Kaolack moo ko gënal kon Kaolack bi Cheikh Ibrahima Niass dëkk Sénégal bi Cheikh Ibrahima Niass dëkk jàmm lañ fiy ñaan yàlla na fi yàlla wàccee jàmm yàlla na yàlla dëgëral suñ jii ji képp ku fa bugg a indi lu dul jàmm yàlla na la yàlla seppi sànni la fële képp ku fi indi jàmm yàlla nañ ko bokk ak ñoom ngi gërëm Cheikh Ibrahima bu baax dëgg-dëgg beneen yoon bu ñuy def programme bi dañuy bëgg nga njëkk a wax ndax Barham Day bi yu bari da nga ko war a leeral te taalibe yi loolu lañ soxla kon ñi ngi sant ñi ngi gërëm du ñàkk nag beneen yoon nga am beneen occasion nga leeral ko ci télé wala ñi def jetaay bu mel nii ñi leeral ko parce que lii la Cheikh Ibrahima Niass doon wax nañ leen liggéey te liggéey boobu ci yoon boobu nga nekk yal na la yàlla dëgëral yal na la yàlla sàmm yal na la yal na yàlla làq fu yàq eggut ci barke Mawlana maa ngi ñëw fii nag ànd ak délégation jamiyat ansaaru diin Serigne Aliou Thiam Abdoulaye Bousso Moubarak Wade Biram Faye ak Seyda Majam Sidi Arabi Niass wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ne li Cheikh wax doy na sëkk ci lu mu waroon a wax sa bàjjan nag bëggoon na nga sànni ay kàddu waaye waxtu wi jeex na te moom nee na li Cheikh wax doy na ko te ku ko xam tamit xam nga ko ne wax ci mbooloo du du mbiram euh, jeunesse bi yëpp lañuy ñuy woo di leen wax ne yi Cheikh Ibrahima tudd point bu ne am na kenn ku ca mën a du dara ñu ngi oo ñëpp ci lii nga xam ne moom la ubbi muy baraam Corporation bii point yi mu tudd bëri na jege na sept wala huit bu ne rek am na ndaw loo xam ne ci ndawal fayda bi la wala taalibe la wala jullit la rek wala nit la rek nit nit sax dana accueillir sax koo xam ne nit kese la koo xam ne bul nga am sax diina ñëwal boo fi accès di nga fi defaroo te di fi mën a liggéey liggéey bi seppiwuñ ci loxol kenn loxoy ñëpp lañ ci woo te bëgg nañ muy ñëw maa ngi leen di xamal ne 2011 ba léegi affaire bi mu ngi dox te dem na ba Gambie soxna si waroon a joxe tey discours am Gambie la ne Gambie ci boppam maam astu maam astu yaayu baay mu nga nee toog mooy présidente Baram Corporation bàyyee ko ba Gambie Banjul la bàyyee ko bari ki démb ba léegi mu ngi fi di xaar jotaay bi xatak jotaay bi ak waxtu wi ñu xam ne moom la ñu saal bi may moo jeex waaye ni kon moom dafa war a jël kàddu kon loo xam ne génn na réew mi ba dem Gambie doomi Sénégal ji ko xamutoon xam nga ko tey Cheikh Ibrahima ngi nii di doomi Seyda dëkk génn ci dëkk bi léegoo léeg tukki tukki mu gàtt ñëwaat waaye léegi ñib si mu ngi ndakaaru ngeen ñëw ñu jàppalante mu nga Saalum mu nga Gambie mu nga fu ne ñu ngi au jeunesse bi yëpp ñu ñëw jàppalante moom ci liggéey bu réy bii nga xam ne moom lay liggéey damay wax ne ñun waxkat yi wax nañ ba jeexal waxi waaye benn jëfkat feeñagut ci ñun wax naa ci gàmmo gi ne man plateau yi sax doyal naa ci bëggatuma ko keroog bi ma bàyyi mbay indee kër umu salamata ndax dañoo wax a wax ba dajal wax te wax manu dara jëf lañ war a def jëf li ñu mooy jëf jeunesse bi nañ buur jëm ci jëf gannaaw bu ñu jàngee ba xam gannaaw jàng nañ ba xam nañ buur jëm ci jëf kii nag ubbi na buntab jëf leader la boo xam ne taxaw na pour jëf te borom xam-xam la bu ngeen ko bi ngeen ko dégloo xam ngeen ne borom xam-xam la wax naa leen ne tudd na ma ñeenti yëf ne ma benn bu nekke jàng naa ko ba ingénieur laa ca kon kon kooku doo tudd gone ci ci xam-xam léegi nag cheikh la ñuy jox di wax ne jotaay bi amoon na ay parrain cheikh alaaji abdullah al xalifa bokkoon na ci ñu ñu rendre hommage te parrain la papa daam alxalifa cheikh ahmada tijaani alxalifa baabul xadrati wa qallamuha laa waroon a njëkkee seydi ali siise wa tarjumaanul faydati alxalifatul awal ci la bokkoon ñi ñu ko tuddee woon imam cheikh ahmada tijaani seydi ali siise ci la bokkoon cheikha dem na fa bu cheikhaay ñaanal nit ñi sax xëy na mu wax ma dara ci sama nopp ma wax ko nit ñi ñu ko dem dem dem xëy na fa dem moom ñëw na sax mu ngi Dakar Euh, suñ yaay yi nga xam ne ñoom lañ ko loom lañ ci doon ñaanal wax naa ko ka jiitu mooy Fatimatu Zahra al Batul taayu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu nit ku soŋewu kooku nit ku baax kooku nga xam ne wax naa ci kër Yoro Kojo ngeen may ma loolu rek lu heure jeex-jeex ne doy na ko wa kafaha faxran mu mën a taxaw ne man Serigne Alaaji Abdoulaye laa loolu yéeme la yaa Fatimatu Zahra moom amut ci nekk magi Alaaji Abdoulaye sëriñam la Mawlana Cheikh Hadj Abdoulaye Niass bi mu ko bàyyi joxe awraadu tarbiyati muy tarbiyu àgg gi xaw a jafe ndax xam-xam bu rëy bi ak njàng mu rëy mi Fatimata Zahra daf ko romb ci jumaa mu génnee jumaa ji jëm kër baay mu gàttandu ko ne ko ba léegi yaa ngi koy wut mu ne waaw mu taril ko ñaari abyaat ci bayti ibnu Farid bi bayti daanoo rek ci la Cheikh Hadj am fatoo loolu yéeme la ñu bari xamuñ loolu mm-hmm. waaw da ngay gis nag taawam baay bu jigéen bi moom mu ngi jas boo nit ci abyaat yoo xam ne Ibnul Farid boo ko wax ñaari bayt la tëri rek keroog la alaaji Abdoulaye àgg ci yàlla euh, sëriñam la kooku mooy Fatimatu Zahra tuddee nañ ko suñ yaay Sayyidatu Khadija nga xam ne mooy umul fayda du ñun ñoo ko wax ne mooy umul fayda bàyyee ko ko wax parce que biir fay mu ne moo toog ci buntu néeg baay bi yaakaar di faati ñëw gannaaw bu ko bàyyee bàyyi xooloo gannaaw gayee te bàyyi néew na samu daan xoolu xoolu heure yooyu ndég mën naa jaatan yi mu daan def mu ne mu ne mu ne ko Kabir kan la mu ne ko Bintul Fayda te xam nga li tax moom mu ne ko Bintul Fayda mooy dafa judd ci atam faydu bi mu ne Bintul Fayda bi mu duggee bàyyi na ko déedéet Kabir kii mooy Xadijatul Kubra moom laa ko tuddee Xadijatul Kubra nag mënta nekk Bintu um, umu lay nekk <laughs> loolu moo lancé umul faydati ñu bëri xamuñ ko bàyyi ne bul waxati Xadijatul Kubra Bintul Faydati umul faydati lay doon Xadijatul Kubra laa ko tuddee bàyyi Xadijatul Kubra la ko doon wooyee mooy umul faydati tuddee nañ ko suñ yaay ju baax jële suñ bàjjen jële umu kalsuum mi ngeen xam mi bokk ak yaakaar di fàtte ndey ak bàyyi bokk na ci ñu ciy rendre hommage di ko ci ñaanal kooku euh, ci jigéen ñi moo ci njëkk wutta alxuraan ci njaboot ak bàyyi gi bàyyi takk rajo 10 heures ci guddi ba gàmmo ci ndeyam ba 4 heures du matin lu yéeme la lu jafe la keroon nag la ñëpp ne danaa xam loolu keroog lépp xam keroog la keroog la sox bi tàkk nag bal bi tàkk ñëpp xam lu baax te ñu baax sax ñu baax sax lañ amoon waaye mu gën a baax keroog la Baye wax ne sama Baye laaj Abdoulaye bu fi ñëwoon tey dana xam ne kaan ci kër gi Yaasin la daan xem man indi naa Ummu Kalsum tey mu mokkal alquran yëpp ala zahril xay bi loolu yéeme la euh, tuddee nañ ko Seyda Roqe Seyda Roqe bintu Cheikh Ibrahim borom markasul falaax jigéen ji tawa def ay tawaalif ci kanam baayam def ko ci kanam mag ñi baaba lamin joxoñ ko bés baaroom nda ko roqiyatu fuxti rijaalal xay yi yow roqiyatu xaama kande waaye yow rawante yow jigéen yow góor ñi nga ku raw góor ñi ma waxatuñ jigéen ñi quartier bi muy Medina Baye ñu fi ne ñëpp yaa leen raw waaye du jigéen ñi nga raw yow góor ñi nga raw tuddee nañ ko ko mooy baram barkatul falaax bañ fa bàyyee ko tuddee nañ ko xaadimatul quraanil karimi nga xam ne moom moom la yàlla dimbale moo xam li bàyyam am Seyda Mariam Cheikha Mariam maa ngi wax journaliste yi ne bëri na groupe presse ak këri presse am problème li ma bëgg a wax nii moo leen ko teg na ngeen bàyyi maa ngi tolloog Mariama Ñas loolu xamadi la Mariama Ñas wax leen ko Cheikha Mariam wala nga ne yaa booy Seyda Mariam seen yaay la seen maam la sax doomam jigéen ci mujj a juddu man na leen day yéen journaliste yi na journaliste yi bàyyi li wax naan maa ngi nii ci Mariama Ñas di ko tegri turam bi di ko wax di ko sàllalu loolu dafa ñaaw te ustaas yi nga xam ne ñim jàngale leen jàngal sax ñu ne ci télé ak rajo yi Seyda Fatimatu diw Seyda Roqeeta diw Seyda Nangam diw Seyda Mariam lu tax mënuñu ko wax Seyda lu tax journaliste yi mënuñu wax Seyda Mariam wala ñu wax Cheikha Mariam wala ñu wax suñu yaay Seyda Mariam sax wala yaa Mariama ñu sax wala soxna Mariama wala soxna Mariama sax lim liggéey ci lislaam ak lim liggéey ci alquran jigéen joo xam ju ko def xamut soow rek ka fi ne waaye Cheikha Mariam mi dem bay li li li baayam am mu am ko ñu tuddee baayam cheikhul islam ci biti ca arabia tuddee ko xaadimatul quran ci arabia loolu moom rek moo ko am ci jigéen liggéeyal alquran liggéeyal lislaam taxawu diina bokk ci ñaanal réew mi bokk ci kàngam yi téye réew bi alam min alami dawla boo ñëwee ba ci école am maa ngi yaama ños maa ngi yaama ños moo tax eh, eh, presse bi ma gis ñu koy gën koy wax ci problème rek lañ dëkk dañ leen tëjalee ay mbir ba sonn dem soobee yàlla Cheikh Mariam ci la yëf yi di baaxee da ko wax Seyda wala ngeen suñu yaay Mariama Ñas sax ñu ngi ni tolloog rond point école yi Seyda Mariam bi wala yaa Mariama Ñas waaye yaama Ñas yaama Ñas yu dul jeex loolu xamadi la dama noon plateau a wax danaa ko wax te danaa ko wax quartier général bu déwénee danaa ko fox insha allah kenn man tere moo ko fox Seyda Mariam nañ koy jox xaqam kii baayam moo ko joxe ci dëkk bi mu ne baayam danaa suyee ñaari rôle man danaa sëy te sëy bi du yàqu danaa am lu baax waaye danaa jëmbat alquran ci kër Alaaji Omar Kan kooku mooy Cheikh Mariam kooku moo toxal saalam mango jikko ci dëkk bi dëkk bi bëri mango oustaz gii ngeen ay dégg ci jigéen ñi Seyda Seyda yëpp Seyda Mariam ci lañ ko jëlee li ci ëpp sax moo jàngal wala kum jàngal jàngal leen naan maa ngi yaam a ñes maa ngi yaam wax ju bon jooju noonu loolu bëgg nañ ñun taalibe yi mu jeex na ko journaliste si ba bokkate ñuñ bokkate ñu ko tuddee sayda umu xayri ma nekk cooto tey yaayi fatiha yaayi fatiha ngi ziyaaraat bu baax ñëpp di jege sama yaay sama bàjjan cheikha ñu waroon a am kàddu dafa bëri sëriñ bi noonu na ma muqaddam bi fokk kenn wax ci waaye wax dëgg yàlla liñ bëggoon moo amul parce que dix heures ci suba lañ waroon a tàmbali waxtaan yi mu jeex nit ñi dimanche neexu ñoo génne heure bi xaw yéex nit ñi yéex a ñëw ñu yéex a tàmbali xajal ci liñ ci xajal sëriñ bi sax xam ngeen ne waroon naa développé lu bëree bari bëri ci waxtaan waaye bu yoon jeexut waaxu sul du jeex Babacar Diop nga baal ñu dañoo waxoon ne muy Cheikh Mahamadou Mamoun insa wala sang Barhama Ndiaye ku fi teew da am kaddu loolu mooy yoon ndax ñoom kat ñoo waral daayira taalibe yi damaa wax ci kar carte générale ne au lieu di gërëm sëriñ si baax na waaye nañ gërëm ñi tax taalibe yi mën nañ siyaare ji Medina su kaari rangee ñu ngi feesal kaar yi mooy muqaddam yi nañ di tudd muqaddam yi nañ leen tudd ndax ñoo liggéey liggéey bi kaar yi di feesee di dem Kaolack te loolu am solo la te loolu rek la fi baa indi bàyyi indiwul fi kon Cheikha maa lay jege boo amee kàddu yooyu jox ma jottali ko su ko defee nga ñaanal mbooloo mi ah Cheikh mu ma jox ko direct rek <laughs> ah déedéet man kay damay sukk kon loolu ko bañ. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Ibrahim mu mu ngi sant yàlla tey julli ci yonent yàlla. Muhammad sallallahu alayhi wa daan wax ñoom moom rek la ñuy wax alhamdulilah rabbil alamin mu ne gannaaw buñ tàmbalee suñ wax ci bismillahi rahmaani alhamdulillahi rabbil alamin jàng faati alhamdulillahi rabbil rahmaani rahim maliki yawmi din yaaka na'budu wa yaaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin amin ya himmatu cheikh ahdiri lana bi hada almahdari wa la tafi bi nazrati tati lana bi bafar léegi nga ko de man su ma ko waxoon sax moom ma ko gën a neexle jàng na ñaan hittey cheikh tidiane chérif radiyallahu anhu mu teewlu ñu mu teew ci jotaay bi mu ngi teew lu hittey Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu ci jotaay bi ak mbooloo mi ak ci waxam mu ne moom de mu ngi kontaan bu baax di tatagal képp ku fi teew di tatagal képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi ak képp koo xam ne bëggoon nga fee teew ak képp koo xam ne amoon nga yéene pour teew ci jotaay bi te wax dëgg yàlla buñ teewee teewal te ñooñu buñ teewee teewal na ñëpp ñun ñii ndax Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim ci ndigalam lañ toogee fii. ñoom ci ndigalam lañ toogee fii tey. ak képp koo xam ne. ak képp koo xam ne. bokkoon na ci parrain yi ak marraine yi. bokkoon na ci parrain ak marraine yi ma doon tudd léegi ci gannaaw. alhamdulilah ñuy santaat yàlla. mu ne alhamdulilah rabil alamin nañ santaat yàlla beneen yoon alhamdulilah. ndax ku am xalifa bu mel ni Cheikh Mouhamadul Mahi. mu ne ku am kilifa xalifa bu mel ni Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass. gis li mu def. gis li mu def. ci yoonu baayam. topp ci yoonu baayam. représenté ko. représenté baayam. mat sëkk. mat sëkk xalifa baayam. kon ñun waruñoo wax lu dul alhamdulilah. ñun ñii topp mi di taalibe yi waruñoo wax la mooy alhamdulilah rabbil alamin ndax bu mu def ci Soudan. mu ne yéen ñii képp ku ci gis liggéey bu rëy bi mu def ci Soudan. dañuy laajte. mu ne ñoom dañ dañ leen laaj ne leen. ñaata doomu aadama la Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass sowe mu ne Cheikh Mouhamadul Mahi yoonam wi ñu ngi laajte ñaata doomu aadama la ci sowe ñaata doomu aadama ñoo muccee ci yoonam wi. kenn xamul nu mu day. loolu de ko bëggoon a compter kenn xamul nu mu day. parce que Nations Unies. ndaxte Nations Unies. ñëpp fa daje. ñëpp daje nañ foofu ci Soudan. moo xam militaire Sénégal la. moo xam militaire yi Afrique la bàyyeekoo comme Sénégal. wala ci wéewu wala Europe wala Afrique. wala États-Unis wala États-Unis ci boppam. ñëpp fay dem. ñëpp dem nañ Soudan mboolem nation yi dem nañ Soudan. li nga xam ne nag moo tënk ñëpp. li nga xam ne nag tënk àddina lépp. yàlla def ko moom mu sottal ko. mu ne yàlla defal ko Cheikh Mamadou Mahi mu sottal ko. ci moyen de deux semaines. ci moyen de deux ñaari semaines. kon léegi mu ne ñun kon ñun waa Sénégal lu ñu war a wax waa jooju ak lu ñu war a wax suñu bopp ñun. alhamdulilah rabbil alamin ñun nañ wax benn baat bi doy sëkk mooy alhamdulilahi rabbil alamin parce que amuñu lu raw alhamdulilah. mu ne ñun dañoo amul lu ëpp alhamdulilahi rabil alamin buñ kontaanee moom la ñuy wax. suñ bégee nañ wax alhamdulilahi rabil alamin dernier jour moom la ñuy sant yàlla. suñ dernier jour incha allahu loolu la ñuy wax alhamdulilahi rabil alamin ñuy dekkiwaat ci loolu la ñuy wax. suñ demee bés penc war a dekkiwaat ci kanam borom bi hit alhamdulilahi rabil alamin lañ fay wax. mu ne kon nañ wax ñun ñëpp jërëjëfee Maulana Cheikh Ibrahim. dolli leen ca kaw. mu ne waxaat leen jërëjëfee bàyyi te mu mu ne daf ko bëgg a dégg ca kaw. góor jërëjëfee Maulana Cheikh Ibrahima mu ne ngeen waxaat ko. cheikh a sikarkat yi li leen war yëpp def nañ ko soo ba tey ñoo fi ne huit heures fi fekk ñoom rek ñoo si gën a respecté rendez man sax respecté wu ma waaye ñoom huit heures bañ waxoon ba léegi ñu ngi fi sëriñ mu ne ñu ngi sant di sant mbooleem muqaddami bàyyi rawatina ñi dëkkee Dakar ñi nga ne seen i représentant ak ñoom ci seen bopp ñoo fi teew ku mel ni Cheikh Mahamadul Mamoun Insa nga xam ne Babacar Diop Cheikh Babacar Diop rakkam représentant mu ngi teew jotaay bi ak Cheikh Alaaji Ndiaye mi ma doon tudd léegi ak Cheikh Ousmane Faye ma ci suuf macha allah ak yeneen muqaddam yi nga xam ne yónni nañ fi ndaw ku mel ni Cheikh Barham Sang njaay ak Imam Mohamed Niass mi fi bàyyeekoo léegi di dawali jumaa ji mu bàyyi Cheikh Omar mu ne ñoom jërëjëf rek la ñuy wax. mu ne waa Barham Corporation ñu ngi leen di wax jërëjëf mu ne yéen seen liggéey rëy na de parce que yéen industrie ngeen wootee ne moom ngeen di def affaire bi industrie la liggéey la de. industrie nag mooy réew. industrie nag réew mu nekk réew réew industrie moo koy yore réew bu ne industrie du dem. mu ne alhamdulilah bu fekkee ne yéen xam ngeen bi ngeen xamee li ngeen sumb lan la. mu ne yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci it mu ngi leen ndokkeel mu ne mu ngi ci jiital doomam Cheikh Amadou Niass di ci teg Cheikh Seynabou doomi xalifa bi Cheikh Seynabou Niass mu xalifa bi nekk teew na jotaay bi moom it ñu koy ndokkeel ak képp ku ñu àndal mu ne gannaaw loolu mu ngi doomam Cheikh Hamidou ñëw ci yëfi e, jaamam bi nga xam ne moom mooy sangam te ci ndigalal baayam la fi ñëwee mu ne loolu alhamdulilah rek la ndax jotaay bi nag lépp mu ne ñun ñëpp daal ànd ak Baye euh, Barham coopération bi yëpp jotaay bi daal Cheikh Hamidou li ko sos daal mooy sargal sa way jur Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass kon nag jërëjëfee Maulana Cheikh Ibrahim mu ne jigéen ñi Cheikh na mu ngi leen di sant ngeen gën a góorgóorlu ndax Baye moo wax ne cheikh amu ne baay moo wax ne e yéen jigéen ñi njàkkalante leen na góor ñi xëccoo leen ak góor ñi mbaax lu baax rek dem leen ngeen bokk ko góor ñi waaye nag wone boteeg ah top modèle bi maa ne ca kaw ak bés bu du jeex te liggéeyloo diina dara di yàq saw yaram bàyyi ñes mu ne moom waxul loolu moom moom li mu wax mooy jigéen juy defar yaramam di ko muur di ko jekkal tey liggéey te def lu baax rëj lëj loo ci yoonu yàlla la Baay wax ci jaamu yàlla mu ne moom mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu ne mu ngi ñaan yàlla nag suñu réew mi di Sénégal ma yoro yoro sëñ bi mu ne sëriñ bi mu ne mu ngi ñaan réew mi yërëm yanaam jàmm mu ne réew mi yal na ko yàlla dolli jàmm mu ne élection yi nga doon tudd léegi te ñu jublu ci yal na ci yàlla def jàmm yaa rabbi képp koo xam ne Sénégal ñor na la ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi ñaan ci réew mi yal na fi yàlla def jàmm yaa rabbi réew mi ban réew la Mawlana Cheikh al réew moo xam ne Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Hadj Ibrahima Niass fi la dëkkoon. ñëpp di ko ci àddina bi monde entier di ko ziyaare si. mu continué kan la. te loolu mu ngi continué ba léegi mu ne réew mi réewu kan la. Sidi Hadj Malick. réew Sidi Hadj Malick maam ju baax jooju. mu ne réew mi réewu kan la. Cheikh Omarul Fouti. ne réew mi réewu kan la. Seydina Limaamu Laay mii dëkk ak ñun. mu ne réew mi réewu kan la. Cheikh Ahmad Ndaak Canaba mu lee ca Canaba. mu ne réew mii ñu toog réew kan la réewu réewu Cheikh bu Kunta la bu Njaasaan mu ne réew mii ñu toog réew réewum kan la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuli la laahi la mu ne lii réew mu dajee wax dëgg yàlla mbaax rekk a fa nekk nag yal na fi yàlla saxal mbaax googu yaa rabbi yal nañu yàlla sàmm te aaral ñu réew mi te aaral ñu suñ xalifa bii Mawlaay Cheikh Mamadul Mahi Ibrahima Niass ak euh, loxo ndeyjooram bii di ko dimbale di ko jàppale mu Cheikh Ahmad Tidiane Seydi Ali Cissé al imam nga xam ne mooy al imamul akbar ak mbooleem njoboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim gi ci seen gannaaw ñoom mbooleem muqaddam yi bàyyi ak fu ñu mën a ne ci ak mboolem taalibe yi bootu ci gannaaw muqaddam yi ak mbooleem doom aadama yi ci bi mu ne mu ngi sargal goroom yee toog am na ay goroom yi toog fële mu ngi leen sargal bu baax a baax mu ne ñu ngi gërëm bu baax mu ngi gërëm baax di wax jërëjëf jërë ngeen jëf mu ne yéen ñëpp daal ci gàttal jërë ngeen jëf si karkat yi cheikh mu ne mu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla gën a neexal baat yi yàlla may leen barke ngeen dem bay dirise mboolem si kari pay bi mu ne mu ngi leen di gërëm goor ña fa toog ak jigéen ñi fa toog yëpp ci taabal ji mu ngi leen di gërëm mu ne mu ngi gërëm képp ku teew rek ci jotaay bi wa ma dalika àlallaahi bi azizin waa at waaw ñu def ñu jàngaa ñu def addiya baay waaye addiya ku bëgg a <laughs> laata naa dee bàyyi ko gën a jekk de laata naa dee bàyyi de moo gënoon a jekk <laughs> jàngaa dee bàyyi hmm. mu ngi def ñaan mu ne nañ jàng fatiha jàng ñetti salaatul fatih hadiyal ko Mawlana Cheikh Ibrahim ridwanullahi taala aley pour yëkkatee ko jotaay bi ba déwén ak jàmm wala ba beneen yoon ak jàmm incha allahu alamin yëkkati leen ko mu ne nañ ko jàng ci kaw bismillaahi rahmaani rahiim